ñun ci télévision Futur Média ñi ngi leen di nuyu am mbégte dellu si ak yéen ci seen spécial débat faram fàcce ni ñu koy amalee àllarba bu jot tey dellu si nañ ci ak yeen Euh, di leen jaajëfal mbokk yi bu baax ci euh, kóolute bi ngeen di àndee ak seen groupe euh, GFM seen émission bi di Faram Fàcce ñu génn nag ci élection yu amoon solo ci taarixu politique muy histoire politique wu Sénégal ndax lii di référendum du bëri li ñu muy faral di am ñu am nag buñ ci génn le 20 mars bi ñu passé mu nekkoon référendum boo xam ni gouvernement bi président Macky Sall jiite ñoom ñoo amoon ay poñ yoo xam ni yëkkati woon nañ ko jébbal ko askan wi doon ci laaj seen xalaat Euh, loolu nag bëri na lu làmb loo xam ne itam dox na ci biir référendum boobu ak campagne bi ni mu demee mu nak loo xam ne itam guléet la sax ñu gis campagne référendaire boo xam ne noonu la demee génn nañ ci ak jàmm nag loolu la ñu fas yéene ànd càmbar ci loolu euh, ñu di ci ànd ak honorable député Demba Diop ñu gën ko xam ci Diop si euh, ñu ngi lay nuyu honorable député. maa leen di fay. ñu am mbégte itam di ci ànd ak kii di élage Hadj Oumar mu ngi ñuy dàpp ci euh, émission bi moom mooy euh, directeur cabinet bu président de la république bokk itam ci kàngam yi nga xam ne ñoo ŋànk parti bi di APR euh, xam naa dinañu dàpp ci biir émission bi ñu ànd ci ak Ousmane Sonko moom itam bokk ci wàll gi nga xam ne ñoom déet la ñu wax waaye itam yore parti politique bi ñu gën ko xam ci PASTEF monsieur Sonko Ousmane ñu ngi lay nuyu. ñu ànd ci ak Doudou Wade moom itam kàngam la yi ŋànk parti démocratique Sénégal bokk. ci wàll wi nga xam ne ñoom déet lañu ñu waxoon euh, ci bii référendum euh, maa ngi lay nuyu président Doudou Wade. Pape maa ngi ñoom mbégte nag mbokk yi ni ñu ko waxee ci waxtaan wi bëgg ci xóot doon nañu am ca waxte lool ànd ko ak euh, ni ñu ko waxee woon ak kii di. le ministre Oumar Youm waaye xam naa dinañu dàpp ci biir émission bi ñu wax leen nag ni nga xam ne noonu la tëddee résultat yi ñu mujj jot te muy résultat yi ñu jàpp ni officiel la euh, ci résultat yooyu euh, ni mu tëddee euh, maanaam ci ñi nga xam ne ñoo inscrire woon ci liste yi tolloon nañ ci juróomi million ak genn wàll ci juróomi million ak genn wàll yooyu ñaari million daanaka ak lu toftalu ñoom ñoo dem voté ji ci loolu ñi nga xam ne ñoo fare ci camp wi ñoom am nañ ci benn million Euh, daanaka ak lu lu jege lu lu lu lu jege genn wàll euh, ñi nga xam ni itam ñoom ñoo fare ci euh, ci déet bi ñoom am nañ ci presque huit cent sept mille deux cent cinquante cinq donc ñi nga xam ne ñooy wii ñoom ñoom un million trois cent cinquante sept mille quatre cent douze ñi nekk ci déet muy non ñoom ñoo am huit cent sept mille deux cent cinquante cinq bu fekkente ne ci wàllu pourcentage la. oui am na 62 pour cent ñi nga xam ni ñoom ñooy euh, noo am 37 virgule 29 pour cent euh, ci élection yi lépp nag bu ñu ko méngalee ñi nga xam ne ñoo dem voté ji ci 38 virgule 26 pour cent la ñu toll. loolu mu tukkee ci résultat yi nga xam ni moo bàyyi ko ci kuréel gi ñu dénk wàllu vote ci Sénégal résultat yi nag la ñu fas yéenee càmbar gannaaw bi nga xamee ni euh, daanu na waaye buggoon naa ñu njëkkee mm, référendum bi ci boppam. ndax bari na loo xam ni am na luñ ci rafetlu am na itam loo xam ni ñaawlu nañu ko ci euh, honorable député ma njëkk la jox kàddu gi ndax mën nga ñu wax li nga xam ni génn nañ ci am na loo jàpp ni gën na ci am na loo jàpp ni tam mënoon na caa ñàkk muy ci forme bi. asalaamaaleykum Pape maa ngi leen di nuyu di nuyu l' ensemble des téléspectateurs di wax ne que politique bu ñu koy def toujours. dana am ñoo xam ni dinañ dox ci doxu yoon am na ñoo xam ne dinañ dox dox boo xam ni du doxu yoon. parce que politique mooy tëddee noonu kenn ku nekk ak sa passion fan lay toll. liñ ci remarqué nag mooy am na ay ñaaw-ñaaw yu si am parce que déjà bi ñuy déparé rek ci référendum bi rek déjà ni mu déparé rek ñaaw-ñaaw yi dafa commencé. biñ ko annoncé déjà annonce bi rek dès l'instant ñu annoncé ko rek. ñaaw ñaaw bi commencé wan na déjà <clears throat> déjà ñu commencé xuloo yi commencé xaste yi commencé sas yi commencé wax la nga xamee ne li nga koy wax wóorul tamit commencé mm-hmm. parce que bari na si ñoo xamee ni am na ay kaddu yu bari yoo xam ni génn na te mënoon naa ñàkk mm-hmm. ci biir référendum bi mm-hmm. même bi ñuy départ déjà rek commencé woon na donc loolu mooy première affaire bi nga xam ni mënoon nañ ko bañ a def ci référendum bi bi ñu aussi mooy waxtaan yu bari mënoon na am avant que référendum bi ñu koy def. Mhm. parce que tamit loolu aussi mënoon naa nekk. mais pression bi fu mu toll woon. jàppaloo ni ñàkk waxtaan boobu moo jurul leneen li nga jàpp yëpp ni am na ci ñàkk waxtaan bu fekkee moo jiitu mën na indi lu ne. waaw moom laa cest foofu laa jëm si. Mhm. xam nga ñàkk waxtaan dañuy wax naan balaa ngay waxtaan da ngay waxtaan ak d'abord ñi nga àndal ba pare. Mhm. boo waxtaan ak ñi nga àndal ba pare nga doog a ñi nga xamee ni que yaakaar nga ni que bokk leen xalaat. mais ñi nga bokkal xalaat nga jëkk a waxtaanal balaa nga ko génne. ci sama xam-xam dama yaakaar nit lu muy def si da koy togg si biir ba pare balaa nga koy génnee. boo toggee ba pare doo balaa nga koy génnee nag nga doog ko génne si nit yi bu amee coow nga doog a dellu si waat seet naka ngay réglé sa coow. mais Pape depuis deux ans ñi ngi wax dafa war a am référendum warul am référendum dañu war a dem euh, a déterminé wu. déterminé wu mais bañ woon xam nga loolu benn point rek la loolu loolu benn point rek la. Mhm. parce que mandaa bi benn point la. donc c'est comme si benn point boobu rek. moom mooy utilité wu référendum bi ñu jëm. parce que forcé nañ ko ne ko waxal forcé na ko déterminer le temps bi forcé na ko waxal balaa élection di jot. waxal parce que calendrier électoral bi mayetu la bu ñu demee ba telle date dootoo ko defati wax bu nekk génn fi avant cette c'est-à-dire nit ñi foog ñu fàttali ko ne. wax bu nekk am na fi tension bu nekk am na fi am na au niveau de l'Assemblée am na au niveau de partout cest partout les gens l'ont acculé ci ni ma koy waxee ci truc ba ma wax nañ ko ba mu sës ci bunt bi donc moom tamit lan la mënoon def mooy ne na ngeen commencé man tamit d'accord naa léegi nañ ko def telle date nit ñi am na ñu ne dafa gàtt am na ñu ne mënoon na may temps am na ñu ne mënoon nañu waxtaan avant muy commencé yooyu yëpp ay ay point la yoo xam ne ni mun na jur waaw mun na jur aussi mhm. ay attitude yoo xam ni. Mhm. mënoon naa ñàkk. d'accord ci biir waxtaan bi. voilà donc loolu moom moo jiitu. voilà voilà voilà honorable dinaa dellu siwaat ci yow Pastef euh, bu njiitam di Oumar Sonko bokk itam ci ñi nga xam ne ñoo fare euh, ci déet bi dégg nga li nga xam ni wax na ko dañu ciy dellu siwaat rek ndax itam euh, naam élection bi mu ngi ci suñu ginnaaw waaye terewul nag ñu jël ay matuwaay yoo xam ni ëllëg buñ ci doon delluwaat yooyu dina mën a ñàkk lan nga jàpp ni mooy rëq-rëq yi nekk ci forme référendum bi. ba jur ci lu bëri loo xam ni mën na ko gàkkal. waaw ah, jërëjëf Pape euh, gannaaw bu ñu nuyoo auditeurs yi euh, di nuyu suñu ñaari papp yi nga xam ne moom la ñuy débattre tey euh, ñun référendum bi dañ cee am position boo xam ne wute na tuuti ak ñi ñu bokkaloon ci fin bi kaaw non bi parce que dañ koy xaaj ci ñetti pàcc. dafa am li jiitu référendum bi. Mm-hmm. am scrutin bi ci boppam ak li ci génn. ak perspective yi ñu mën a dégager li jiitu référendum bi moom mooy première question bi mooy euh, lépp li jiitu référendum bi dañ ko faussé depuis le début mhm. te du responsabilité kenn ku dul président de la république ak booram mhm. ndax réew dafa am nuñ koy yoree dafa am un minimum mhm. daf mënuñu calendrier républicain ñépp a ko bokk du kenn mooy définir calendrier républicain mënuñoo toog ñi bokk géew gi yëpp kenn mënul wax ndax lii dina am wala du am wala kañ lay am. muy élection présidentielle. présidentielle comme référendum bi ci les réformes institutionnelles. d'accord ok parce que li tax ñun ma ne suñu position xaw naa ute mooy ñun bi affaire bi ne kët ne joon dañ ne balaa ñuy wax ci wii wala ci non am na combat de principe bu ñu war a poser. Mhm. parce que référendum bi waruloon am. Mhm. ndax référendum bi dafa ci li ñuy wax ci jurisprudence constitutionnelle waaw ci jurisprudence constitutionnelle li la ñuy wax référendum déloyal mhm. mooy ñu ko seq jëluñu départ en même temps ñoom ñu ngi ciy liggéey depuis ñeenti at li ñu def yëpp dañ ko planifie ñeenti at ñu ciy liggéey mais soo xoolee diggante bi muy convoqué le corps électoral ak référendum bi mu war a am trente jours la est-ce que gis nga benn dele 30 jours ci code électoral pour un scrutin même su dee le code électoral est assez mieux pour le référendum mais dafa am l'esprit des textes parce que scrutin la c'est pas une élection mais scrutin la dañuy dem ci urne yi 30 mm-hmm. jours diggante bi ngay convoqué le 18 ak bi ñu war a dem référendum le 20 ci diggante boobu fekk ñoom pare nañu bu yàgg ñi ñu war a amal euh, am devant eux pare guñu woon ñaareel bi mooy diggante bi muy publier bi ñuy génne journal officiel le texte définitif le 2 mars ak le 20 mars bi scrutin bi di am 18 jours la ci 18 jours texte boo xam ne nee nañu charte bi nga xar moo war a tënk réew mi ñu war koo xam ñun xamle ko Sénégalais yi ci 18 jours. te moom séeréer yi proposition bi mu def dañu defoon ay proposition mooy dafa waroon am temps d'adaptation ñu traduire ko ci langue nationale yi. sénégalais mm-hmm. xam bu ñuy dem ci lan la ñu jëm mais nga jël lépp tënk ko ci précipitation boobu. ba pare génn nag ak ay moyens yoo xam ne lii du woon référendum kese loolu ñun ñëpp dëppoo nañ ko ndax liñ ci xëpp moom defe naa élection présidentielle sax duñ ko ci xëpp loolu moo tax ñun ñu jàppoon nii depuis le début les dés mm-hmm. balaa ñu doon dugg ci cas non wala wi dañ ne dañu waroon mener combat de principe ci côté boobu nag opposition tam ci boppam jàpp naa ni am na ci njuumte. Mm-hmm. parce que bi ñu leen ne combat de principe d'abord dañu njëkk a xeex pour wane ni lii. waruñu koo defee nii am na ci ñoo xam ne même ñun bi ñuy dugal recours dañoo jàppoon am na ñu ma woo ne ma da ngeen ñu nar a yàqal ndax waa ji jox nañu yat wuñ ko dumooy ñoom jàppoon nañ ni non bi day gagné. ba tax ñu ne même su dee décret yi am na ay illégalité yu ci nekk nañ ci gëmm dem ci référendum bi alors que waruñu ko woon doxalee noonu. tey suñu demee ba ne ay recours a ngi ñëw dañuy dab ci li ñu waxoon alors phase boobu. ñun dañ jàpp ni responsabilité président Macky Sall la te wane nañu ci suñu firnde ni li mu li mu li mu li mu li mu laxasee mbir mi yëpp ay naxe la mhm. ndax lenn moo ko intéressé woon ci consultation bi mu def conseil constitutionnel tuddee ko décision mooy la non applicabilité du mandat de la de de la réduction du mandat au mandat en cours mhm. te moom ci discours am dafa ne lépp lu conseil constitutionnel wax dina dinaa dinaa ci tënk ba projet définitif bi day day conforme ak loolu mais ñun génn nañ ci ñett wala ñeenti mbir yoo xam ne ci ay clause de réserve réserve d'interprétation yu conseil constitutionnel def la tam newul ci mouture définitive bi li muy firnde mooy mouture définitive bi mu proposé peuple bi méngoowul ak euh, avis conseil constitutionnel bi mu ne moom avis boobu da ko lii ba mënul appliquer mandat cinq ans mhm. li muy firnde rek mooy lenn moo ko ci intéressé woon mhm. ni muy def ba mu def mandat cinq sept ans mhm. yooyu yëpp la ñu dajale woon ñun ne balaa ñuy dugg ci terrain bi nga xam ne moom moom moo ko xàll parce que piège bu mu xàllool nag bugg ñun ñëpp ñu dugg ci dañu njëkk a mener la bataille de principe bi ñu demee ba xam ni nag néew ñu ci état de droit te ñoom dañuy def forcing dem ci référendum bi ci la ñu ne donc sénégalais yi dafa jot Sénégalais yi assumer seen responsabilité ci leen parce que la souveraineté appartient au peuple la ça n'appartient pas au président de la République yi nekk que délégataire la souveraineté appartient au peuple te peuple bu ñu présenté loo xam ne xamoo lu mu doon te ñi voté ñëpp kenn mënu la ne 15 points li ci nekk dëgg dëgg dëgg lu mu doon te suñ ci duggee mën nañu génne ci ay firnde. xam naa dinañ ci dinañ ci loolu newoon suñu ñu voilà merci monsieur Sonko dinaa dellu soit ak yow euh, ñu nuyu El Hadj Oumar euh, directeur cabinet bu président de la république ñu ngi lay nuyu maître. maa ngi lay fay bu baax. voilà xam naa dinaa dellu soit euh, ci yow président du Wade. mooy laaj bi nga xam ni moom laa laaj euh, honorable député ak euh, monsieur Sonko Ousmane ci lay dellu si ak yow euh, ndax référendum bi jàll na waaye xëy na référendum nekkaat suñu kanam wala yeneen i élection yu ñu dëgmal rëq-rëq yi nga xam ne war nañ ko mën a moytu te nga gis ko ci lan nga mën a jàpp ni loolu am na ci. Oh, maa ngi tudd màgg son borom bi di julli janeen bu sedd di sant Sénégalais yëpp yi nga xam ne ñoo dem ci élection yi ba élection yi ñu génn ci jàmm di ci gërëm aussi communauté catholique bi bi nga xam ne reculer nañu seen date ci feet bi ñu amoon di wane ne Sénégal jàmm mën na fi lalu te nit ñi am nañu benn maturité bu rëyee rëy rëy ci loolu di gërëm nag képp koo xam ne wote nga wii ak ku wote non ba ñu génn ci élection yi ci jàmm di ci sant nag ñi nga xam ne man ak ñoom ñoo bokkoon xalaat ne dañu war a wote non di leen sant ci seen taxawaay ak seen jëfin ak résultat yi nga xam ne am nañ ko ci référendum bi alors euh, bi ci jëkk mooy euh, wax nañu léegi ne am na ay désagrément booba temps sax campagne bi commencé gul mhm. ba pare wax ne mënoon na am dialogue avant mhm. désagrément yi jëkk yi ak jaloog bi avant yëpp nañu jàpp ne du ci camp non bi parce que ñoom ñoo yore seen bës mhm. ñoo war a seen yëf ñoo ko jàpp ñu tënk loolu comme d'accord nañ ci te dafa mel ni sax président de la République xawoon na ci d'accord parce que am na benn tukkeem bi muy tukki nee woon na bu ñëwee dina rencontrer opposition boobu Burundi la woon waaw xam naa ne amagul mais xëy na dina ko def donc loolu muy li nga xam ne moo jëkk ci li nga xam ne charte réew mi la du candidature diw ak diw dañuy seet ñun ci ban tëralin la ñëpp di doxale ñu bokk bu fekkee ne jàng nañ ko jàng boo xam ne bi dañ koy jàng ngir réew mi te bañ ko indi par parloo nit mën na far. mais du par parloo mooy référendum boo xam ne bi constitution bi la laal ba ñu dem ci dafa am doxalin. boo xam ne buñ ko doxalee doo ci am coow. bi général de Gaulle di ko proposé en 58. après les événements de 62 bi ko Senghor di proposé ak bi muy créé premier ministre ak bi Abdoulaye di ñëw yëpp. noonu lañ ko doxale ba nga xam ne participation bi dina rëy te waaw bi dina àgg 94 90 99 99 même bi ñuy jël suñu indépendance ñu war a demander indépendance immédiate am na 82 pour cent de oui et le donc nga jàpp ne donc ni ñuy doxalee référendum bi moo tax référendum bi ñu ci waroon topp yëpp ñu ci loolu il faut ñu nangu ko nañu jàpp 5 millions yi nga xam ne ETEC yi nga xam ne inscrire nañu. nañu jàpp ne 65 pour cent bi téeméer boo jul juróom benn fukk ak juróom nee nañu ñoom affaire bi intéressé ñëwuñu ci. du ñu non du ñu wii. mais mel na ni e, li ñuy ñu nar a àtte itteelu leen. mooy baaxul. d'accord bi ci des. mooy li nga xam ne wax nañ ko ci niñ ko organiser ci bi ñu ko jëlee ak bi mu ñëwee. man d'accorduma ak Sonko ci fukki fan ak ñaar yi mu wax référendum bi li ko tax a jóg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg bu fekkee ne par par parloowuñ mooy mandat bi jóge sept ñëw cinq ans. mandat en cours bi. waaw moo moo yëkkati ñëpp ñëpp loolee leen yëkkati woon daje nag ñoom ci ay émissions yu bari ñu nangu ko dem nañ sama benn bés am na ko ma ci ne kenn du siyee. branche bi nga toog loolu Pape Alé fekke na ko. donc loolu dafay nekk loo xam ne lii bu amee juróom-ñaari at yooyu bi président Macky Sall demee ba xam ne baaxul ci moom te du ñun ñoo ko jëkk a contesté maa ngi koy fàttali. ñu bokkuñu assise nationale demuñu ci mais bu mu génnee ñoom ñi def ko ñoom ñi rejoindre assise nationale ñoo ne duñu ko def. d'accord Abdou Mbow. Ah. Moustapha Cissé ñu bari bi ci des. Mm-hmm. mais mais. professeur Ismaïla Madior ci boppam moo ne CNR yi dafa dem fu ñu ko yabalul kenn santewu koon loolu président ne dinaa ci jël li ma neex. d'accord donc loolu moo ñu indi fii. voilà merci beaucoup. Euh, Matrium ñi ngi dellu nuyu la xam naa li la raw sax ci euh, ci ci waxtaan bi mooy kàddu yi nga xam ni honorable député Diop si yëkkati na ko euh, ci lu jëm ci consensus bi waroon jiitu laataa ñoo jëm ci référendum bi moo nekkoon waxtaan bi moo ci gën a fës ñëpp nag gis ni maanaam consensus boobu ñàkk na ci leneen li nga xam ni itam dégg nga ko ci ci président du Wade muy nii ay la yéwén bu ñu demee ci référendum ponk bi ci gënoon a am solo yitteel leen yitteel seen gouvernement weesuul mandat bi en ñu yemale ko ci juróom-ñaari at ndax li président yëkkati woon ci wàññi ko mënatu ko euh, yow ci laaj bi nga xam laaj naa leen ko ndax jàpp am nga ay ponk yoo jàpp ni yu ñu waroon a mën a euh, defar la mu gunge référendum bi te amu ci. waaw d'abord maa ngi lay nuyu di nuyu ñi ma fi fekk tey waxtaan ak ñoom sax ak ñoo waxtaan bi di jéggalu d'abord di la jéggalu di jéggalu sénégalais yi ñuy seetaan. Mm-hmm. ci tardement bi ma am. te mu nekk urgence boo xam ne moom laa doon toppatoo faaf mu xaw a ëppi loxo maa ngi ciy jégalu bu baax. di kontaan aussi di daje ak euh, Sonko sunu sunu nijaay Doudou Wade ak suma xarit euh, Diop si ak yow toujours parce que émission bi émission bu am solo la. Mm-hmm. Euh, di sant sénégalais yi bu baax ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci ni ñu demee waat wane sunu taxawaay ci sunu démocratie. ak sunu militantisme parce que objectifu référendum bi euh, jàpp naa comme consultation populaire la woon mooy ñu dem ci ci ci jàmm te wax dëgg jàpp naa ne sénégalais yi dem nañ voté ci jàmm ak maturité démocratique nag bu mat sëkk dem def li ñu waroon def muy camp wu non comme camp wu oui ku ne li nga waroon def def nga ko ba campagne bi jotee campagne nga dem nga si nit ñi wax nga ak ñi nga yaakaar euh, mobiliser nga say militants ak say responsables ak say sympathisants ah, yàlla dogal na que tey résultat yi génn wii bi moo ko emporté. taux bi 63 pour cent presque. donc wax dëgg yàlla jàpp naa ne kon dañu war a sant yàlla ci loolu aussi euh, pour affaire bi nga wax nag ci consensus il faut ñu rappeler waat jëf yi parce que Sénégal dañuy toog rek dialogue dialogue dialogue am na ñu may dégg sax ñu naan xamuñu li nekk ci kii bi ku ñu laajoon fii ñun ci ñun ñu toog fii ne la article 1 constitution Sénégal actuelle lan la wax dinga nga ñu ne la article 3 lu mu wax di nga gag te ñun jàng nañ de ñun ñooy élite yi article lu mu wax di nga gag article 5 lu mu wax di nga gag boo ko demul seeti kon yooyu ñuy wax loolu loolu tax nañu ñu réglé ko ci point yi moo tax ma ne la gis nga yooyu ma lay wax dama ne mhm. souvent ñun droit bi dañ ko bàyyil spécialistes yi ñu koy jàng loi amul benn loi boo xam ne nii tey nit dina toog ak même ak commencé député yi koy wote di la ko taril article 1 ba ba loi bu fa mu jeex donc yooyu ay wax la yoo xam dañ koy wax pour meubler rek nii waxtaan mais mënuñu ko reprocher gouvernement sénégalais parce que ça ne date pas d'aujourd'hui ca suñu cosaan la parce que langue bi ñuy wax ak ba ñuy wax ci droit bi langue boobu booy xool Sénégal ñu ko ah, jàng bu suñu cosaante baaxul itam non dama la bëgg a wax rek dama la loolu parce que ay wax la yu ñuy wax nii rek am léegi amul woon mais dama ne la article euh, ah, constitution ñii ñoo ko songoon laaj leen article 1 wu constitution 2001 lan la wax donc yooyu dama la bëgg woon ne rek ay affaire appropriation de constitution de division nangam nangam kii pour man vraiment argument yu woyof la fi ñu jógee fan lañ jógee ki nga xam ne moom la yàlla jox baatu réew mi muy président Macky Sall balaa muy ñëw dafa ne man bu ma ñëwee bëgg naa def ay réformes ci programme am yoonu yokkute réforme territoriale réforme de l'administration réforme de nos institutions réforme de notre démocratie jox ko CNRI fi mu ñëwee mu jox ko CNRI CNRI mission mooy mu càmbar defal ko ay proposition CNRI def na càmbar bi la mu waroon a def pour construire la consensus ak waxtaan ak jaloog man jàpp naa ne CNRI def na ko boo xoolee rapport CNRI bi dafa am ay annexe mhm. mooy ñoom seen méthodologie lan la kan lañ waxal kañ lañ wax ak moom ci yan fànn la ñu waxee moom lan la leen tontu def ay sondage d'opinion mhm. Sénégalais lan lañ bëgg ban xeetu démocratie lan lañ bëgg ci seen mandat lan lañ bëgg ci seen président de la république lan lañ bëgg lan lañ bëgg lan lañ bëgg mhm. donc pour man parti yëpp la ñu wax amul benn parti buy toog na mosuma gis commission CNRI mhm. wala mosuma def bon bëri CNRI gis na leen wax ak ñoom société civile et cetera et cetera bi ñu paree président wax na ne man li ma séyee na di di jox lii laa ciy wax. dama ciy jël li ma neex. lii laa ciy wax dama ciy jël non bu la neexee nga ah, waxee ko waaw bu la neexee nga waxee même bu dee waxee na loolu sax. waaw mooy loolu mooy loolu mooy cëram parce que politique publique yi. Ah, moom la fal pour mu wax. waaw nan la koy doxale mhm. Mhm. bi mu defee message am 31 décembre. Mhm. wax ne lii laa siy jël. déggoo kenn ku ne point yi président di jël baaxul. déggoo kenn ku ne euh, lii dafa yées wala dafa yàqu wala day indi ay yàqu-yàqu sunu démocratie. Mhm. man boog dégguma ko yow tamit boo ko déggee comme journaliste nag ma wax. Mhm. bi mu pare mais loolu man pour man président bu waxee joxe. Mhm. c'est que ubbi na dialogue yow nag sa dépend ni ngay jëlee waxu président. bu waxee jox la wax ak peuple bi ñëpp la waxal yow bu dee parti politique nga wala société civile man nga jël sa plume. président gis naa point bi te la preuve bu dafa wax deux jours ou trois jours après ñu génn lépp ci internet bi mais loolu mooy mooy mooy mooy mooy dialogue ndax loolu mooy respect aussi non non attendez mais la parce que ku muy waxal message à la nation ci bëgg a parti politique yi ñu ngi ci biir wax naa ñëpp maintenant yow li yow mi waxal yow mën nga structurer nag message mhm. bind lettre mais président de la République gis naa lii gis naa article tel bi nga bëgg a modifier ci sens bi. toujours aussi par par par internet nga koy jaarale loolu. non mën nga ko bind lettre président de la République mën nga ko bind. internet bi c'est pour informer information publique la leen jox. yéen nag yéen ay tontu wax ko bu xoolee li ngeen ko tontu. mu jàpp ne lii yenn na maanaa mu ne ah kaay leen ma ñëw ñu toog waxtaan ci lii. man kat nii laa ko gisee nii laa ko. mais kenn kenn kenn kenn kenn waxul. Mhm. ne ko lii nga def baax na wala bon na. Mhm. ba ñu fi ñu commencé bonal mbir mi kay. mooy ba ñu demee ba ci conseil constitutionnel conseil constitutionnel ne président de la république ay la yéwén yow sa juróom-ñaari at yi bëggoon nga ko appliquer mandat juróomi at. mandat boobu nag mun jàpp nañu ne. mënoo ko def ci mandat bii ndax ndax ndax ndax ndax. d'accord président def loolu ci la coow li commencé. ci la coow li commencé. d'accord te ñu la wax ne la lii ñuy modifier. te te gisoo dara lu jar coow. non pour man. gisuma xam nga li tax gisuma ci lu jar coow. waaw lan la ñuy wax. d' accord cest ban argument lañ lay wax. boo xam ne est ce que est ce que dafay indi. day indi fitna ci Sénégal. dinañ la wax argument est ce que dafay yàq suñu démocratie ci ban poñ lay yàq suñu démocratie. Mhm. est ce que dafay yàq suñuy jikko. Mhm. est ce que daf ñuy delloo ginnaaw ak naka lañ delloo ginnaaw. man yooyu laa bëgg ñu wax d' accord alors député ni ni mu yëkkatee débat bi moom indi nañu ci beneen wàll dinañ ci dinañ ci dem euh, bala ñuy dellu soit carrément ci résultat référendum bi waaye dafa bu bu wax mooy bi nga xamee ni bataaxalu président dem na conseil constitutionnel mu jàpp ni li li conseil constitutionnel tontu ci mandat bi dara waru ci mën a am coow ndax loolu euh, am nga ci xalaat mais leneen li nga xam ni itam dafay dugg ci biir référendum mu ñaari question nga baal nga baal ma boole ko tontu ko. Mm-hmm. mooy ndax itam ku sukkandiku ci kàddu yi nga xam ni moo tukkee. Euh, ci Ismaïla Madior Fall mi nga xam ni mooy conseil juridique bu président de la République mm-hmm. te bi ñu dëgmalee mbir mi mu dugal ci leneen. maanaam wax ni kat lu jëm ci 15 points yooyu jàpp leen ni dañ leen ko won nii mais points yi ëpp na fukk ak juróom ndax loolu itam gisloo ni lu lu mënoon a indiwaat coow la ba gën a xajamal référendum bi ñu dugg lëndëmal xel yi. merci pas mais damay wax toujours rek ne Ismaïla Madior Fall technicien la. Mm-hmm. or ñun on est dans la chose politique xam nga technicien yi bu ñu liggéeyee ba pare politiciens yi dañ koy jël. Mm-hmm. kenn ku ci nekk nag da koy wëlbati à ta pour mu jariñ la. Mm-hmm. donc on est dans la chose politique li nga xam ni moo si baax yëpp ni Sonko si biir biiroo xam dégglu naa ko léegi dafa ne scénario la ñu def scénario ñoom xamoon nañ ko avant muy génn parce que étaient la dedans ñoom waa scénario bokk nañ ci truc yi bokk nañ ci ci waa scénario parce que li scénario def ñi ñu doon consulter am na ñu ñu consulter ñoo xam ne ñoom si la ñu bokk donc loolu déjà ñoo amoon nañu information parce que li tax moom sànq mu wax ni que dans la constitution. li nga xam ni moom la conseil constitutionnel yónnee correspondrewul ak li nga xam ni moo génn solo le journal officiel parce que dafa am luñ ci jël am loo xam dañ ko si dindi. Mm-hmm. su fekkee dégg naa li mu wax xaw ma nag dégg naa ko la déet dafa ne si biir li nga xam ni moom la conseil constitutionnel yónnee. bu ñu ko toppee si biir gis nañ ci ay incohérence yoo xam ne am na lu mu waroon jël te jëlu ko. yooyu yëpp damay wax ne que c'est de la chose politique politicien mooy génnee loolu mais li nga xam ni moom la ñuy wax dëggantaan li indi coow bi yëpp cinq ans sept ans la. xam nga Pape jarul ñuy wër-wërloo jëm fenn. affaire bi cinq ans sept ans moo indi coow bi. bu président ne woon cinq ans bi dañ koy appliqué ñëpp dañuy dem vote ji. dina am benn coow mais comme dafa tënku parce que man dama d'accordul ci de moom dafa war a wàññi cinq ans parce que man dama gëm ni waat moo gën a wér moo gën a wér yéene. waat pour man moo gën a wér wi yéene kon pour man sept bi war ko mun a def. que mu bëgg ko lu ci munti doon yéeneem la même bu ñu nee am na pouvoir pour def ko sax. mais bu fekkee ni que bàyyi na sept bi bàyyi na sept bi ñëw cinq ans mais moom ñi ko woote woon pour sept bu dellu subaatee si ñëw est que bari nañu ko votel pour sept ans. non mais ñi ko voté woon ñëpp sept lañ ko voté. ah cinq ans laay def voté leen ma cinq ans la leen campagne. waaw d'accord c'est-à-dire xam nga yaa ngi ne cinq ans laay def. la leen campagne moom cinq ans la leen. campagne mais ñoom ñi nga xam ne ñoom lañ ko doon campagne. waaw ñoom xamoon nañu ne que cinq ans bi mënta nekk. <laughs> dama ne. dama bëgg d'abord nga déglu mu baax. 5 ans bi mënta nekk te ñu ngi ciy dem bu fekkee ci fii mu nekk nii la 8 l'emporte ci 5 ans lañ jëm. parce que dañ koy voté dañ koy voté ba pare. moo jox la exemple en 2001. Mhm. quand Abdoulaye Wade est venu ñuy def référendum daf ko yóbbu 5 mhm. ñu daw tuuti mu xam ne 5 bi amul njëriñ mu ne non nañu changé waat kii bi daf ko 7 ans. ah pourtant yow 5 nga voté de. man waaw actuellement nii. voté wu ko parce que moom loolu la bëgg man man xooluma benn point rek. mais pourtant da nga ni cinq ans bi baaxul. mois j'ai regardé les quinze points. ah d'accord man xooluma benn point rek. ok man foo ko nekk ci benn point rek la ñuy def. Mhm. amaana comme li muy wax nii am na ñoo xam ne peut-être kon duñ dem voté ji. d'accord parce que benn point bi rek du leen mhm. intéressé. d'accord mais il quinze points. li ma buggul mooy ñu yaakaar ne débat bi. Mhm. dafa war a yem si benn point. d'accord mooy cinq ans sept ans. c'est pas le débat. Mhm. c'est-à-dire parce que quinze points la ñuy jox. Mhm. bu ñu ko bëggee yemale nag ci benn point rek dootuñu amati temps. d'accord alors Sonko euh, boo déggee wax ji yëpp mooy yéen yéen a indi coow li li tax ngeen indi ko mooy li ngeen bëggoon le président àndul ak yéen su ci àndoon ak yéen mm, mais coow li du am mooy yéen cinq ans bi moo tas seen yaakaar moo leen xunduloo moo tax ngeen génn ni ngeen génne mais pourquoi cinq ans bi war leen déranger. xam nga euh, moom dafa ne waxu politicien la mais defe naa ñun bokkuñu conception politique. peut moom ni muy concevoir politique. ñun concevoir wuñ ko noonu. Euh, ñun l'histoire du mandat ne nous a jamais intéressé Macky Sall président Macky Sall mu def sept ans wala cinq ans man ça ne m'intéresse pas. sauf sous l'angle maintenant principe de l'engagement du leader taxaw ak sa askan kenn sexalu la lem kenn tegul fetal sa bopp nga ne bu ngeen ma fale ma jëlee mandat bi sept ans def ko cinq ans mhm. loolu engagement électoral la référendum bi 2012 bi mu waxee loolu ak yeneen engagement yi mu jël askan wi génn jox ko 65 ans askan wa def na référendum am mhm. te jàpp naa ni kilifa kilifa gu toll foofu ne damaa bëgg a yootu réew mhm. am na loo xam ne doo ko wax ba pare te càmbaroo ba xam ndax mën na nekk wala mënul nekk moo tax ñun waxu mandat bi dama ne su président Macky Sall bëggoon wàññi mandaam soxlawul mu dem conseil constitutionnel. Mhm. te moom ci boppam wax na ko discours bi mu def le 16 février dafa ne si j'ai choisi la voie référendaire à la place de la voie parlementaire prévue par l'article 103 ça veut dire que xam na ni ñaari am na su ma tànnee bi bàyyi bii c'est parce que dama bëgg askan wi prononcé wu mais xamoon na ni boobu mën na ne te defaat na déclaration bu ni mel temps yële. donc ñun màndaa bi dañu jàpp ni lii lépp pour maquiller benn wax waxeet la li tax ñu def précipitation gaawantu indi référendum bi pour ñun dafa am ñaar dafa am mandat bi man su mag président Macky Sall defee sept ans yàlla xam na ni ça ne me fait ni chaud ni froid lu dul ci sensu engagement mu am nag nos institutions. Ah, mais moom wax na la waat la gën a naw ko wax. ndax Diop si dafa jàngul droit gis nga soo jàngee droit di nga xam lenn. Il, il n'y a pas il n'y a pas de il n'y a d'une élection gis nga mandat souveraineté mhm. dañu ne sa appartient au peuple gis nga des ma non bàyyi ma terminer yaa y a des lois qui ah, peuvent rétroagir defe naa maître yow mun na la ci jox benn cours mais xam naa ni comptable nga nga ñëw yem ci boobu mais li ma bëgg a wax man mais day fekk ñu voté ko ah, voilà la bu yàq li ma bëgg a foofu mooy li ma wax bëgg a wax foofu mooy mhm. à côté de cette question de mandat mhm. dafa am ñun lu ñu gënoon a soxal mooy ñun ñëpp jàpp nañ ni Sénégal am na problème institution. te munu mënuñu régime bu ñëw def référendum. constitution États-Unis depuis kañ la. mais loolu lañ bëgg a régler ñoom. non mais instabilité justement nag loolu la ñu réglé parce que. si gis nga. constitution bi ñu ko ci mandat bi et beneen affaire ma bëgg a ñëw dinaa ci tontu. Euh, maître Youm bi mooy suñu deuxième débat ma dégg ko mu ne tel aspect gisuma ko critiquer je crois que war naa tempérer ces ces ces ces assurance waxoon na ko ci PSE bi ci débat bi. ma ne ko da dul déglu émission yi wala da nga dul liir contribution yi. projet bi en tout cas xaw ma kan mais ñun def nañ ci ay production point par point wax li bon ci projet bi benn naa la ci jox quelques mandarga yu gàtt gàtt gàtt. yu moom gëmloo ni man projet bi du lii lañ doon xaar su dee dañu bëgg a réformer suñu institution dañu tudd léegi CNRI. xam nañ ni parmi les problèmes yi ñu am suñu institution bokk na ci la question de la de la magistrature. Seynéry lan la proposé pour pour pour ce point la parce que duñ la jox appliqué nga tànn ci ngooñ gi bàyyi l'essentiel ñëpp xam nañ ni problème mu magistrature benn cordon ombilical bi am diggante. le parquet ak l'exécutif. article 6 statut magistrat mooy suñu problème. mu am proposition yi Seynéry def. ñaareel bi ñëpp xam nañ ni présidence du conseil supérieur de la magistrature. ñu ne proposé nañ ne président République waru ko continuer nekk. ñetteel bi question inamovibilité des magistrats ana benn bu ñu dugal ci ci projet bi amul. ah munuñu ci def lépp. ñu ne ñu no xam nga Sonko mënuñ ci def lépp aussi Pape Ngagne doo toog ni yow boo nee lii nga bëgg ñu def ko ci keneen ni lii laa bëgg ñu def ko ci. ñaata point lañ jëm non dañuy wax ci dañuy wax projet boo xam ne moom dafa utiliser terme réforme consolidante. dama ne su dee ci magistrature loolu moo ne woon les points qui consolidés. mais mandat bi du rek xaaral réforme bu am solo. gis nga jëlee non bàyyi ma ñëw bàyyi ñëw ci mandat bi non non mënu ma ne projet bi lépp da cee ah, damay wax dafa ne. Mhm. critiqué wuñ ko may génne aspect yi ñu critiqué. d'accord comprendre li ma wax. dama ne intrinsèquement. waaw ce qu'on propose in extenso amul critique maintenant nag mën na am ay insuffisance yow mën nga ne lii doy am na critique bàyyi ma ñëw ci samay critique non non mais il faut pas monopoliser le temps d'accord bàyyi ko mu ma ñëw ci samay critique sa réforme bi tey réforme bi on a on nous a ramené mm-hmm. le Sénat sous une autre forme ñun xamuñu assemblée nationale lu muy jëriñ fii lu dul ay xeex moom député la au conseil xam nga conseil conseil social. Mhm. defal micro benn sénégalais mun la wax lu muy jëriñ. Mhm. nga andi yeneen institution pour caser une clientèle politique. d'accord ak yeneen ak yeneen mun naa ci ñëw des aspects yoo xam ne yu dangereux yu nekk jëlal article 86 dernier alinéa ma jox la ko. Mhm. ñu copier ko sur France. ñu prévoir parce que ñoom nee nañ dañoo renforcer assemblée nationale. nga yokk cas yi xam ne l'exécutif peut légiférer mun na jàllale loi. jaaleel ko ci engagement responsabilité. su assemblée nationale déposé motion de censure ci kii mu jàll d'office. nga yokk cas yooyu te limité ko xam nga France bi ñu ko jëlee. c'est bon limité ci loi fiscale voilà merci dinaa dinaa ci dama bëggoon génne xam nga ñoom suñu naan nit ñi critiqué wuñ dafa yomb. nit ñi bind nañu mais prochaine fois incha allah xam naa ni dinañ ko gën a yaatal ci angle boobu. Euh, président Doudou Wade muy li nga xam ni moom laa wax Sonko rek laa lay wax te ñoom moom mooy aussi seen wax euh, boo leen déggee toujours mooy bu ci coow amee référendum bi mandat bi la ñu laalul mandat bi lañu lañu lañu lañ ci boolewul mandat bi daf leen gën a gënoon a soxal ndax egg eggoon na leen foofu ci mandat bi ñàkk ko wàññi ci cinq ans tax ngeen amee comportement bi ba ku nekk jàpp sax ni du mandat bi ngeen amal affaire wala référendum bi mais président Macky Sall ci boppam moom ngeen demal référendum. waaw xam nga Pape dama bëgg suñu waxtaan ñu bañ koo indi teesante. Mhm. ñu waxtaan. Mhm. parce que mënuñu commencer chaque fois bu ñu waxee d'abord dafa am ñetti danger yu peser ci ñun te na ma ragal ne acteurs yu bari politique yu bari mesuré wuñ ko et c'est dangereux nga nekk dara ba pare te xamoo yow li lay dab lan la. les acteurs politiques que nous dañu war a jàpp ne bu ñu wooyee Sénégal ñun parce que Sénégal bi Macky Sall woo référendum citoyen yi la woo mais woote bi ñun dañ ci ànd. Mhm. bu ñu ko defee cent personne si nag soixante-cinq yu toog dañu jàpp ne war nañu jaaxle bu ñu jaaxlewul posé wuñu question boobu ñu ngi jëm foo xam ne fii ñun politique yi dina métti ji ci ñun te nag constitution bi moo ñu jox ñun nañu yéen yéenay conquérir le suffrage universel. d'accord bi nga xam ne peuple bi moo ko yor. léegi ci question bi. très bien ci question bi laa yor dama question bi aussi il faut ñu jàpp ñaari yëf. président Macky mhm. bi nga xam ne moom moo présidé séance bi nga xam ne moo indi. diire bi ci sept moom ci boppam campagne ko wax ko présider ko dañuy jàpp ne sept yi bañ koy def ci la d'accord bu demee nag ba ñu génne ko ci réunion yóbbu ko ne ko waxal lii parce que loolu aussi duma lu ma inventé nañ ko weddi parce que Alioune moo ko wax mu ne dañ ko fekk réunion maa nga fa ne ko ñëwal wax ne wàññi ko wante dugal nañ ko ci lu mu bëggul bi mu ko defee ba pare jàppal ne ñi jëkk xul bi CNR yi génne waa këram la ngoonte boon ñoom bi mu ko indee du woon mënatu ko bëggatu ko la waaw ah, d'accord ndax bu ko bu ko bu ko bëggatu ko ndax bu ko bëggoon def ko waaw bu ko bëggoon def ko xam nga man kenn du ma ko laaj mhm. man kenn amul droit laaj ma ndax loo bëgg ku ma ko laaj du ma la sax wuyu parce que li ma defal sama bopp kër gi ma tabaxal sama bopp defaral ko sama bopp ku may laa dëggam bëgg nga si kër gi nga dëkkam de da ngay da ngay da ngay du war a tontu. mais moom mi ko defoon ba pare ñu dugal ko ci dara mu bëgg ci génnaat moo tax ci biir këram la jëkk am problème. xam nga wax na ko léegi. bi ñuy waxee ne référendum rek la dem nañu ba sàgg ñu ne am na beneen seconde voie parce que dañu ne il y a voie royale bu amee voie royale rek am na voie voie princière. Ismaïla Madior bindaat na ne. mënoon naaw assemblée barke ba président wax na ko avant campagne bi jeex j'aurais pu l'envoyer à l'assemblée mais xam tax mënu koo woon yóbbu assemblée parce que ci biir parteem ñu ni toog di ma xool am na ñu ko buggul yow yaa ngi assemblée xam nga am na député yoo xam ne yi ci problème bi Macky Sall maîtriser wul majorité am yow xam nga ko yow dóp si mhm. yaa ma gën a xam ne assemblée mais loolu am na donc loolu mooy won ne ñàkk waxtaan bi moo indi yëpp mhm. mais mais li am ba am mooy constitution. dañ koy waxtaanee. ok te maa ngi lay yëgal benn affaire de. Mhm. yemul ci lii rek parce que gis nga li mu bind nii. Mhm. dina am yeneen loi yu ci tegu maa ngi koy wax fii nag fi ñu jëm. ci statut de l'opposition yi yëpp. ñaari affaire moo ci gën a am importance. Mhm. pour ñoom statut de l'opposition bi fi lañ ko fekk. il faut ñu légiférer si. xam nga lan mooy problème bi. le statut du chef de l'État. ci lañ toll. d' accord mu leen ci xaar. waxtaanee leen ko. d' accord président alors euh, euh, euh, euh monsieur euh, monsieur le ministre Oumar Youm wax na ñaari wax yoo xam ni dama bëgg la ci interpeller bi ci jiitu mooy président bu ko bëggoon def ko te quand ñoo ko ci njëkk a découragé dégg nañ la sax yow ci jamono jooju nga wax ni juróom-ñaari at le président war a def. joxe sa position kon mu mel ni bokk nga ci ñi nga xam ne ñoom lay cité waaye dafa am lu mu wax lu ma tiital mu ni loi yi dem na naam voté nañ ko mais am na leneen luy ñëw maa ngi dégg Sonko di sërxal juróom-ñaari loi yoo xam kenn xamul lu mu laxas euh, ndax loolu ñoom dañ ko wax waxu kujje wala jàpp nga ni mën ngeen fa egg ëllëg. xam naa am na daano yoo xam ne boo ko boo ko daanoo. Mhm. sa xel dina toog lu yàgg pour nga pour mu ñëwaat. jàpp naa ne ci phase boobu la ñu toll vraiment. Mhm. Euh, d'abord bu ñuy wax démocratie mooy il faut ñu respecter l'expression du suffrage. dañuy dem barka demb référendum. loolu dimanche la. peuple bi ne lii laa bëgg. en dépit du fait que quand bu nekk jël nga say argument wax nga ku nekk def na ku nekk def na li nga mën. pour gagner man jàpp naa ne peuple bu xasee wax ne lii moo lii lañ bëgg lii lañuy def euh, wax dëgg yàlla amatuñu sax bu dee ay démocrate lañu. temps wu nekkati encore di di di nekk ci ay ay li ñuy tuddee chipoté cest à man pour man loolu dañ ko dépassé maintenant euh, am na lu mu junj léegi mm-hmm. mooy moom dafa mel ni moom devin la day nekk ci xelu nit ñi ak seen xol di yeewandoog ñoom di xam li ne seen biir ak la ñu bëgg ak la ñu bañ man loolu man moom moom responsabilité am la. moom président Doudou Wade. waaw moom responsabilité la. Mhm. parce que moom moo ne loolu am na responsabilité am la nañ ko bàyyi ak responsabilité mhm. parce que amul benn firnde bu mu teg pour wax li muy wax. Mhm. Euh, li ma xam te gëm ko mooy président bi muy ñëw déjà au pouvoir dafa ne man mandat wu cinq ans laa gëm. maintenant un président candidat qui di man mandat wu cinq gëm bind ko ci kayit ñëw dëggal ko. contrairement ak li ñuy wax campagne ñul naan man mandat wu cinq ans laay def dama koy non attention benn déclaration la def entre les deux tours. non non non c'est-à-dire vraiment. Euh, dama bëgg dama bëgg ñuy dégg ñuy déglunte Sonko s'il vous plaît dama bëgg rek ñuy déglunte dama bëgg dama bëgg ñuy déglunte rek ci ci yëf monsieur le ministre yaa ma njëkk a dog waaw d'accord kon baal ma ak baal ma ak dootuma la dogati <laughs> alors donc def na déclaration mhm. ne lii laa bëgg firndeel na ko ci ay kayit ne lii laa bëgg mu nekk. wax nañ ni wax na ko juróom-ñeenti yoon. wax ko fu nekk. waaye mais loolu dañ ko dépassé. xam nga lan moo xew fim mu ne. tout à fait ouais. c'est-à-dire tey le peuple a dit malgré tout sa mm-hmm. en dépit de tout sa on donne une onction a ce que tu veux comme réforme. bu buñ la waxee ban peuple. nga ni 2 millions ci 14 millions. mais non attention c'est-à-dire que yooyu aussi. yooyu aussi gis nga li ma la wax. waaw 2012. Mmh. ñoom ils ont eu 51 pour cent de taux de participation. bu dee dañuy mathématique rek bu aveugle dañuy jël 49 pour cent plus le taux d' abstention mu gagné Ablaye Wade. 2007 93 51 pour cent de taux de participation dañuy mathématique 49 pour cent d' abstention plus ñu voté pour président Ablaye Wade en en en 93 non. tax ma ne des fois xam nga léeg-léeg mooy mooy li ma wax rek mooy daanu yoo xam ne vraiment fi ne nii. xam naa ne am na lu bari on parle de référendum. non non mais dama lay wax même référendum non non non ne peuple bi mhm. Mhm. participé wul. mais ñun ñaar ñëpp kon ñun peuple bi daf ñoo weddi yéen peuple bi. mun leen ko revendiquer dans l'abstention comme ñun mënuñu ko revendiquer dans l'abstention. wax naa ko ba pare. da a da ngeen a wuti keneen wuti. Mhm. dans un espace où le vote est libre. c'est-à-dire que kenn mënu la ñëw forcé na la demal voté ci kenn mënul chargé benn obligation na yow yaa tax wala yow yaa waroon a def nit ñi dem voté ji man nañ ko wax reproché état bi mën nañ ko reproché mën nañ ko reproché parti politique mën nañ ma ko reproché donc yooyu vraiment dama bëgg ñu nekk ay démocrate xam démocrate mooy lan woote nañu ñu ñëw c'est la majorité qui l'emporte même dans les conseils d'administration mais bu ñu la convoqué ñëwuloo mooy loolu mooy les absents ont tort Mm-hmm. ceux qui se sont manifestés sont pour la cause ñooñu la ñuy compter compter wuñu ñu toog seen kër bañ a ñëw. en en plus référendum yi ngeen di comparer te ñu yor ko fii booy xool 1 million 234 mille électeurs 1 million xaw ma ñaata votant 1 million 500. 80 83 63 70 2001 nga am fichier wu million millions d'inscrits. mais c'est proportionnel. non non c'est-à-dire non non c'est-à-dire xam nga mais mais li non non c'est pas proportionnel. attention maître li lay wax aussi par rapport ak la population. 2000 2001 sunu population c'était comme non 2001 sunu population c'était combien. mais non dama lay expliquer dama la bëgg a wax. c'est simple. mooy que ne comparaison d'abord n'est pas raison muy benn. ça c'est vrai. voilà deuxièmement 6 millions d'inscrits xam nga lan moo ko indi. 2005 la suñu fichier bi explosé on a quitté parce que sinon si c'est proportionnel à la population comme ni mu koy waxee donc ça veut dire que chaque année dañu yokk 2,5 démographie noonu la yokkoo. d'accord c'est pas ça. Mhm. l'explication c'est qu'en 2005 on a fait carte d'identité ak carte électeur nit ñi dem. ce qui fait que ñi xam ñi actuel bi. il faut que quand ma wax mu ne ñi xam fichier actuel bi te ma dégg nga ne 6 millions d'inscrits te sa ministre nee tey millions 496 mille. global. c'est pas on n'est pas dans des dans des histoires donc 600 000 électeurs c'est important. non d'accord 5 millions 500 bien je vous concède cela. dama ne 6 millions environ. mais mais dama la bëgg wax ne la loolu moo indi tey nga am 1 million 500 mille ñoom ñëpp d'accord nañ ne y un stock mort parce que bi ñuy def audit du fichier tout le monde a dit il y a des électeurs inactifs dans le fichier. qui n'ont jamais voté depuis leur inscription. qui font million 500 000. ci 1 million 500 mais donc dans tous les cas ñun on n'est pas là pour justifier. d'accord l'abstention donne des exemples en France et partout. de référendum parce que élection bu nekk ak nature am le taux de participation que nous avons eu on l'a pas eu dans les élections municipales. Mm-hmm. qui sont des élections locales âprement discutées. Mm-hmm. donc yooyu ñuy wax. encore une fois. un peu de respect et d'humilité voilà, par rapport à l'électeur sénégalais a décidé. voilà et c'est député. Euh, muy question bi nga xam ni ñoom junj nañ ko ni am na leneen ci ay loi yu ñu lax lool nag assemblée nationale rek la mën a jaaree ëllëg. Mm-hmm. député nga fa boo gisee loo xam ni indi nañ ko te bokkul ci niñ ko xalaate woon ban taxawaay nga jort ni war nga ko mën a am assemblée nationale. non dama yaakaar ni d'abord ne nit ki mënul wax rek basé ko comme ça ci yaakaar naa ni suba nangam dina am. Mm-hmm. xam nga assemblée seen comportement lu muy am bu ñëwee moom xam na assemble nag lay lay fonctionner du xëy suba rek ñu yónnee benn këyit mais ñoom dañoo waxoon ne que li ñuy def ni actuellement ci référendum bi nañ ko jaarale assemblée. donc mun naa am yeneen loi yu ñëw assemblée. li xam ne sëriñ ni moom moo ko ko proposé woon parce que liñ doon bañ yóbbu l' ensemble du à l' assemblée nee nañu léegi lañ doon bañ mooy da am majorité mécanique moom nee na. majorité bi Macky Sall am c'est pas mécanique da nekk ñoom ñëpp am na ci ñoo xam ni d'accorduñu woon. ñu d'accordul woon si. ci euh, ci ci cinq ans sax yow xam nga ci dara moom nee sax xam nga ci dara. kenn ngi ah, ni jege la. dama ne moom si boppam. Mhm. Doudou Wade. Mhm. d'accordul ci cinq ans bi sept bi la d'accord. Mhm. moom lu mës a d'accord PDS moom la ñu mës a d'accord waaw lan mooy position PDS léegi ñu mën a la wax léegi ni dafay def sept ñu ne non. PDS loolu la mësu d' accord sept ans ils partout ne d' accord uñ ci cinq ans ko mais moom lañ def ci loi bi. déclaré nañ ko ma ne. nekk nañu assemblée c'est la loi de l' assemblée. non non attends rek ñëw nañu assemblée mu ne responsable PDS yëpp mësuñu wax lu dul sept ans. déggoo ma ne la Macky Sall la ko defar xanaa kay jeexal na wax ji. waaw kon nag léegi comme yàgg Macky la koo defoon sept ans waaw kon kay jàppale ni sept ans bi kon bu ñu ko war def kay warul am problème kon yow bu ñu demee léegi mu sept bi ñëw yow kay nga ko voté Diop non moom moo jekki-jekki ne sama sept bi ma defoon yow bàyyi ma indi ko cinq ans ma ne ko xam nga li muy li ñuy wax nii c'est parce que dama leen wax sànq ne leen cinq ans sept ans bi rek mu indi coow man man gisewu ma ko sax dama naan deux ans yi côté indi coow ndax di la différence c'est deux ans c'est-à-dire nit ñi yàkkamti woon nañu ba nga xame ni indi mënatuñu woon deux mille deux mille dix neuf na yem deux mille dix sept rek. ñu xataraayu ci télévision yi. xataraayu ci rajo yi mel ni comme ñu jëfur. c'est ça que je n'accepte pas man. d'accord loolu la accepté wu léegi loi yi bu ñëwee assemblée. mais loi yi bu ñëwee assemblée ñu ragal ni laxas nañ ko ci biir. amul loi boo xam ne day ñëw assemblée ñu ragal ko gis nga assemblée moom nee na assemblée dafa bari ay nit yu indi contradiction assemblée yoo xam ne que peut-être. d' accord waxu loolu. ci mandat bi laa wax ne am na ci mandat bi d' accord mais dama lay wax ne man man maire xoolal man man député maa lay wax ne que loi day ñëw assemblée nga dugg commission mu mel ni comme doo xamee kenn parce que bu boobaa nit ñi doo gisatuñu kan moo indi loi bi mhm. ministre bi day yàkkamtee génn xam nga ndax lan. Mhm. parce que day dégg question yoo xam ne moom foogul woon sax ni que ñi mu àndal dinañ ko wax. d'accord parce que loolu. moom mooy loi loolu moom loolu député loolu lañ fii loolu moo tax ñu bàyyi leen fa. d'accord bu fekkee dañu gis loo xam ne que yaakaar baaxul si réew bi wala yaakaar nañu ainsi de suite. Mm-hmm. mais bu ñu fa indee lu baax. mais dañ koy voté. d'accord alors euh, monsieur Sonko euh, ca dëgg-dëgg boo dégloo itam le ministre euh, Oumar Youm ay la yéwén nit ki aussi ci rafet na nga nekk républicain nekk démocrate bu ñu génnee ci scrutin muy élection askan wi bu dee ñaari nit la ñu woo ñu wuyu sax ña nga xam ne wuyuñu nañ leen teg fële donc ay taux de participation lu ñu war a mën a teg ci suuf la euh, wax ci li nga xam ne moom la askan wi wax million trois cent cinquante sept mille quatre cent douze ñoo ni waaw huit cent sept mille deux cent cinquante cinq ñoo ni déet mais ay la yéwén ci démocratie war nga jàpp nag ni amatul lu ñu war lu dul ndokkeel leen et ñu avancé ci ci ci 15 points yi liggéey ko mu jëm. ñu xam nga référendum ñu passé ñun dañ cee nekk ci position boo xam ne dafa xaw a wute légèrement ak suñu yeneen naataango yi ne ci opposition moo tax ñun gisuñu fi lu fiy jël ak lu fiy victoire xam nga car euh, impact politique bi ñu bëggoon jox référendum bi ñun justement loolu la ñu bëggul woon. parce que référendum. non boo nee noo kii ne déet. defal ndànk rek non non xam nga lan la. Ah, ah. référendum. Ah. consultation populaire. li la tere wax waaw kay mooy d'accord xaar rek ay questions yu ñu laaj peuple bi la. waaw ne leen lii est-ce que bëgg ngeen ko wala bëgguleen ko. kenn du jógee ci référendum ne député. yéen ngeen ni peuple bi loolu baaxul xaaral rek. kenn du jógee influencer peuple bi. kenn du jógee ci référendum ne léegi député la wala président la wala maire la. Mhm. peuple bi la ñu laaj mu tontu. kenn ku ne am nga ci sa xalaat. ñun foofu la ñu ne ñun peuple bi te li ma wax dañ koo argumenté. d'accord jël projet bi point par point mun naa ci poser léegi ñaar ñiy toog ay question ci tel article tel article mënuñu ma ko wax te mun naa leen ko taril donc ñun dañ koo càmbar doog cee wax. du par parloo waaw. mun naa ko jël dinaa mun naa ko wax. mun naa ko wax mais mais duñu dugg ci. mais mais li ma a wax ñu jël point xaaral rek li ma bëgg a foofu li ma le ministre léegi <laughs> dafa wax. dafa wax waxu daanu. <laughs> daanu amu fi. daanu amu fi. daanu su amee. bu bëree amee rek daanu non daanu su amee man jàpp naa ni. bu bëree amee rek daanu bi xaaral ma wax la premier daanu bi xam nga lu mu doon. Mhm. kii woo askan wi. parce que ñoom li ñuy bañ debaa bi ñu bañ mu posé wu. débat boobu duñ ko fi mu a dindi mooy wax waxeet am na sénégalais xam nañ ko. Mhm. léegi nag biñ ko démontré ba pare wane ni su doon conseil constitutionnel décision conseil constitutionnel rek moo leen lii. conseil constitutionnel lan la wax ci article 89 de la nouveau article de la constitution yow nee nga xam nga article 89 bi lu mu wax lan la wax. jeex na conseil constitutionnel leen article 89 ni ngeen ko bindee baaxul. parce que su ngeen jëlee magistrats yi juge conseil constitutionnel jëlee leen cinq yóbbu leen 7 am du méngoog mode de renouvellement bi dem leen bindaat ko est-ce que bindaat nañ ko bindaatuñu ko conseil constitutionnel leen le régime des partis politiques. mënu leen ko dugal ci constitution jox ministre de l'intérieur pouvoir boobu parce que liberté d'association la c'est sous le contrôle du juge bindaatuñu ko. yeneen ak yeneen mu ngi ci constitution bi mais. ban ji bu bees yi wala bu yàgg bi. su may wax kay yow xam nga li may wax léegi nga jël loolu yépp daal di woo askan wi. ñu ne 32 pour cent ci askan wi ñoo génn. nga am ci waaw boo xam ne musuñu koo am du ci taux de participation di wii euh, bi nu mu ko emporté nga génn ci loolu ñu gis ni ñoom defoon nañu ci affaire bi seen bakkan lañ ci tegoon. <laughs> gis nga liñ ci xëpp ci alal yow noo munee génn man gis naa ay ministre yoo xam ne fonctionnaire lañu ni man. Mhm. xëpp ay milliards ci dem loué ay hôtel génne ay cortège yoo xam ne xaalis bu dul jeex. ceeb yi doon circuler nangam nangam. Mhm. munoo génne sénégalais non waaye wane nañ ko ci internet rek fu ne malgré tout man daanele foofu d'accord munoo génne sénégalais yi mhm. lu dul 32 pour cent su amee ko war a inquiet xam nga kan la mhm. ñoom ñii ñoo war a inquiet parce que xam nga même rek ma daaneel foofu man li ma gëm mooy waaw fi ñu mënoon def le plein de voix ñoom mhm. mooy benn ñi ànd ak ñoom par conviction te bariwul ak ñi nga xam ne xaalis moo tax ñu génn ñoom def nañ foofu le plein de voix d'accord nga am 65 pour cent d'abstention naan victoire am na victoire amul. d' merci alors président Doudou Wade. waaw ah. dégg naa li Sonko wax wax na jiiñ na eh, leen. waaw mais mais je je bi ñu waxoon. wala ndax CREI su fi ne woon yenn ministres yeeg yenn fonctionnaires yi ñoom ñëpp dañu leen waroon woo CREI. d' accord Sonko ndax ku yor génne ay milliards te goroo yattoo. fonction publique nga ne. je vous en prie je vous en prie nañ dégg naa dégg na Sonko accusé leen de achat de conscience maanaam jënd dañu nit ñi def nañ ci lu bëri waaye itam lu mel noonu mën nañ ko waxal opposition bi ci yàq xelu nit ñi ci wax leen ni lii bu ngeen ko voté euh, mbiru góor jigéen dafay gën a bëri Sénégal euh, loolu itam jiiñ nañ ko dégg nañ ko ñu bëri ñu wax ko ci kujje politique gi ndax jàpploon itam ñu indi woon manipulation boobu am nañu defet ci nii askan wi tontoo waaw bi euh, ci ci référendum bi ñu génn parce que bu ñu waxee waxu waxu xaalis itam wax nañ waxu yàq yàq der ak wax waxu góor jigéen te loolu yëpp mën nañ ñu nekkul ci quinze points yi. waaw dama bëgg man ci kàddu yi may yëkkati mu nekk loo xam ne lii bu ma génnee ni may xalaate ku nekk li ma wax ma réfléchir ci parce que du ma kuy dem nii rek di tëltëli du ma façon député boobu Diop man xam naa li xaw assemblée nekkuma fa nag yéen a ma ko gën a xam mais jàpp naa ne président groupe bi fa gën a fort génn wax ne ne assemblée bi moo gën a nul te échec la jàpp naa loolu man loolu laa jàpp moom waxoon ne rupture la dem moom nee na assemblée bi gën nul bii la après nee na bërkaati démb ci biir mois de mars c'est un échec ci observateur xam loolu doy na ma vraiment doy na ma bu ma déggee aussi wax yenn yoo xam ne yi daf may jaaxal ala kulli alin di nga jël une loi organique sur le statut de l'opposition dëgg nga jël loi sur les députés bi ñuy dugal ci biir. attends may ma tuuti rek. man soxlawuma këyit yooyu parce que am naa assez d'expérience pour dire décision bi ñuy jël. pour dugal lelection de député de Sénégalais de l'extérieur de l'extérieur amul place ci constitution bi parce que yow sa député sax yow yow nekkoo ci constitution bi noonu dañu nekk l'Assemblée nationale est composée des gens qui sont appelés députés mhm. mais nañu koy voté nañu koy tànne beneen loi moo koy réglé jaru ko woon yow sa bopp nekkoo ci nga bëgg dugal député de l'étranger muy ñaar bi ci des statut du chef de l'État man jàpp naa ne a ngi ciy liggéey vous y travaillez fii laa ko waxee bi ci des mooy li nga xam ne moom la wax les le le des collectivités locales. dina am loi organique bu koy réglé koy tànnee ku koy tànnee ndax élection la ñuy dem ku koy tànn dina am. mais du leen ci xaar kan ki ngeen koy jox moom xam nañ ko. déet waay Ousmane Tanor la ah bon. non moom la. Ousmane Tanor ma ne moom lañ xanaa kañ affaire collectivité local ñi xuloo ci mais moo ko moom c'est préparé pour lui ñu ngi suñu kanam dina am loi de bu wax ñaata lañu lu ñuy fayeeku fu ñu koy tànni ku koy tànn li ma lay wax gis nga xam nga nekk ci baraxlu war nga xam ne weeru koor a ngi ñëw bu fekkee ne yow xamuloo ko te xamuloo ko te jàppuloo ko yow te commencé je réfléchir ma xam ne li Moustapha Diakhaté wax dëgg la mhm. weddil ma ko non du ma que lu ah, ah, président man la sama question de. wax nga ci loolu question bi. waaw dama la manipulation bi dégg nañu du manipulation. je vous en prie manipulation boobu jëmul ci waaw. da jàpp ne tout na ne tout si xamuñu juriste yi xamuñu nangam ñun xamuñu loi nangam mais mais mën nañ ko lire. Mm-hmm. dama ne constitution de 2001 lan la wax yaa ngi bokkoon nga ci 2001 bi ñu porté constitution bi. c'est la république la laïcité. la démocratie non da liir ma xam. non jarul liir te wax appropriation kay mooy soxlawul liir. man loo wax mën naa ko génne fii soxlawul liir mën naa mënu ma ko tari mais mën naa ko jàng mu ngi sama poos. Ah dama koy nafar bés bu nekk yow am nga ko drapeau du Sénégal lan la. dimbali ma waay itam président je vous en prie. oui c'est président allez-y. parce que am na ay député yu ko xamul. waaw. Chantal moo deuxième couplet hymne loolu andi wuñu fi. d'accord dañuy ñëw waxtaan. bu a ne troisième couplet hymne national mënoo ko. non loolu laa leen wax. waaw waaw c'est-à-dire que mooy yéen. moo tax moo tax ma wax la bu ñu jëm ci li wax président nee ma dugal manipulation fan nga ko teg nee par exemple intoxication. waaw waaw loolu du manipulation lan la xam nga la laïcité du ci tontu dañu ne woon ne dañ koy rendre intangible. waaw dootul dañ. Mhm. Ah, dañ na wala dañu. waaw dañ na. nga demoon xanaa ñi ko ñu ko doon ŋàññi am na lu taxoon ñu ŋàññi ko te nangu nañ ko buñ ko dindee rek nangu nañ li ñu doon wax. Mhm. bi ci des les nouveaux droits bi ñu ko cité benn droit lañ ci cité bu leer mooy. ñett le non attends le déglu ma rek ma waxal sama bopp. Mhm. le droit à un environnement sain. mais loolu mu ngi ci article 7 de wala gis leen ko yéen. le droit à un environnement sain. du lii. waaw ngoonte man bu ma ko mënul jàngit man ko lire soxlawu ko nouveau droit nag léegi nañ ci discuter mais nouveau droit dafa bari ci àdduna bi xam nga mooy ban droit. mooy droit góor jigéen. ah déet waay. oui oui attends nouveau droit yi France ba ci droit yi mujj léegi. mooy boo boo feebaree feebar bu yàgg. Mhm. docteur bi mën na laa rey. te loolu dina nangu ko. droit à l'avortement. détoy nouveau droit la. d'accord président mais droit yooyu dañu wax ne. maître je vous en prie non attends xam nga damay daaneel. waaw non seulement mën nañ ko regle te du loi bi euh, médecin la wax da koy bind. te ma dégg avocat bi nekk ndar mën ko bind war ko bind mënees na ko bañ a bind te régler ko ci constitution ci lu gàtt. te doo tudd homo nuñ koy réglé te doo homosexualité. man nga bañ a tudd homosexualité. allez-y réglé ko ci biir constitution bi te doo defar loi. naka je vous en prie. dafa yomb. lan ngay def loolu dañ koy waxtaanee. d'accord alors maître. ku dégg président Doudou Wade nag euh, xel yi dina jaxasoo bu baax parce que li mu wax nii te tëggu ci maanaam dëggu ci tëggu ci euh, muy euh, dara du ko dindi ci mbiru góor jigéen mi ngi ci biir nouveau droit yooyu. Euh, mais loolu maître ndax amuloo ci lu la ci lu la ci tiital. loolu man bëgguma ci sax tontu xam li tax bëgguma ci tontu euh, wax bu amul bopp amul genn la amul bopp amul genn ay waxu ku toog di wax lu la neex mais ku ko tegaloon kaamil fii mu jàpp ba set waat ndax loolu am na ci biir du ko ñeme amul amul dañu waxante dëgg non non c'est-à-dire que dama ne dama ne. yow ma ne dama ne lan mooy le nouveau droit dama da nga wax ba pare da nga may bàyyi ma wax. da ngay wax ba pare man dama la toog di la déglu tontuwuma sax ci li ngay wax. may ah, bàyyi ma wax dama ne loolu amul. trois articles ñoo nekk ci article vingt cinq à modifier vingt cinq un vingt cinq deux vingt cinq trois am na sax ku ne ñun article quatre vingt neuf bi bi ko conseil constitutionnel kiiwee waxuñu ko loolu amul. xam nga ñun. mais yow nga amul dafa yomb te doo non mais mais non dama la dama lay wax ni. parce que ñun ñi dañu bëgg ñun dañuy démontrer yow démontrer non dama lay wax li la at boo génnee article 89 bi nga xam ne conseil constitutionnel moom la def réserve ak article 89 bi ñu bind di nga ko gisal sa bopp. xam nga réserve bi non c'est-à-dire vraiment <laughs> réserve bi ñu article bi bi conseil constitutionnel defoon ci article 89 xam mooy lan. Mhm. mooy que ne article bi ni ngeen ko bindee nii avec le renouvellement des manda dina am ñoo xam ne dañuy ñëw te seen mandat trois ans du mat xam nga bi ñuy booy def lu bees. Mhm. da nga koy def pour di ko tëgg de telle sorte que bu mandat yi di jeex ñett ñi am trois ans. Mhm. c'était d'abord le conseil les magistrats sont au nombre de sept. Mhm. ils sont pour une une de six ans. le renouvellement et cetera se fait au au trois quatre tous boo xoolee article bu bees bi doo ci gis renouvellement bi. mais loolu lañ ne noonu ngeen ko. dindi boo ko dindee xam li tax. booy gis ñuy def institution yu bees ñuy def renouvellement c'est pour gérer le temps de la durée du mandat. comme ñun xam nañu ne bu ñu dindeewu comme conseil constitutionnel bu bees bu ñu koy def loolu dañ ko da ciy àndaale mais bu demee ba ñor ba nga xam ne gars yi dañ mën a yàgg def seen 6 ans. kon jaratul ñuy def renouvellement moo tax ñun mécanique boobu mécanisme boobu la ñu utiliser pour retirer parce que le conseil constitutionnel nous a pas dit dindi leen article dafa ne revoir la rédaction mais ñu dindi li nga xam ne mooy lay mooy ñu dindi renouvellement bi bàyyi fa mandat wu 6 nga xam ne ko ñu nommé da dangay def 6 ans dem sa yoon. on règle le problème amatul renouvellement parce ah, que renouvellement ci institution yu bees yi lañ koy def. loolu nga liirul loolu moo la échappé non il faut être honnête c'est-à-dire que non xam nga euh, d'accord on aura le temps demain de se voir quelque part pour mu woon la jaa les deux rédactions c'est clair c'est ça ñun on a respecté à la lettre mm-hmm. toutes les orientations du conseil constitutionnel je dis à la lettre dans la forme comme dans le fond mais non quest que le conseil a dire que vraiment Sonko bàyyil dëgër bopp nag. waaw <laughs> ah, waaw loolu ne démontres pas. man ñëw ma pour su ma waxee dara nga dindi ko. dama la liiral li nekkoon ci projet bi avant la décision du conseil constitutionnel. wax la li ñu si dindi pour tenir compte de la décision du conseil constitutionnel bu la dayul mën na la bàyyil ba suba. d'accord loolu kay ñi toog ak internet fekk yooyu yëpp dañ ko leeral. léegi dafa passé dañu dem ci nouveau droit yoo xam ni kenn xamul nouveau droit yooyu. loolu ñuy wax. waaw ñetti articles yooyu ñoo fi nekk. droit à un environnement sain. mais dama ko gis ci biir constitution bi. war dañu ko dañu ko tëggaat est-ce que c'est la même rédaction. na xool article vingt cinq bi ñu def droit à un environnement sain ak lañ ca toftal yëpp. Mhm. ak article sept bii mu lire est-ce que benn la. d'accord. du benn le le statut de chef d'opposition mu ngi ci biir mu ngi ci constitution bi mu ngi ci loi bi euh, la modernisation des parti politique ak parti politiques concours à l'expression du suffrage mu ngi ci parti mu ngi ci constitution bi mais ni ñu ko tëggee ak ni mu nekk ni du benn loolooy am importance bi mm-hmm. beneen bi non mm-hmm. c'est-à-dire que vraiment dama bëgg danga wax ba pare bàyyi ma nag ma wax mm-hmm. bu la neexee bu dee démocratie lañ ne waaye ma wax loolu mooy benn mooy rédaction mën nañ def le principe proclamation des droits nouveaux et cetera article 7 mais ni ñu ko tëggee ci article 25 un bi du benn. même si par ailleurs sens bi mun na nekk benn. beneen droit bi mooy le droit d' au foncier et aux ressources naturelles loolu du ñaar ak boobu muy ñett. loolu c' est bu bu la neexee nga bañ ko tudde nouveau droit xam nga man lan laay bañ nga tudd nga xool ci ay droit yoo xam ne nekk ci mooy bu amul woon ci suñu corpus non non déggoo li ma la wax cest à loolu demal ci code du domaine de l'État kii bi dinañ la wax quels sont les mécanismes d'appropriation du foncier xoolal bu la neexee nga ne nouveau droit wax ñu limal ñu nouveau droit dama ne bu la neexee nga ne droit yooyu yëpp ñu ngi fi woon xam nga man lan laay bañ droit yooyu day ubbi porte ci avortement droit yooyu day ubbi porte ci góor jigéen loolu laay bañ. non comme mu ngi fi woon ñoom yee nañ seen bopp. kon mu ngi fi woon lan lañ ci gisee góor jigéen ak ak loo xam ne dafay nuru luy yàq suñu diine ak luy yàq suñu der wala suñu culture wala suñu. d'accord donc vraiment waxaguñu un mais bu ma la waxul dama ne dama ñu benn. est-ce que loolu nekkoon na ci constitution bi comme droit constitutionnel ou pas. oui mu ngi ci woon. mu ci ah ci préambule bi la charte africaine des droits de l'homme charte africaine citewul ces droits la mais préambule ak corps constitution da koy yow juriste nga dama ne non xam nga xam nga kon lan la ñuy def bu ñuy bindee ñu fi un nouveau droit amagul bokkul attention attention dama ne ah, da nga ma déglu bu baax mais man ñu benn nouveau droit moo nekkuma ci yow ak waxu nouveau droit xam ma lan laay wax ak yow waxuma ak yow nouveau droit de dama ne yéen ñi ci gis affaire góor jigéen te xam ne droit yooyu amoon nañ di yéen ko wax amoon na fi kon lu fi bees. kon loolu loolu fi mën a gis loolu lañ fi mën a gis. man dama la wax li fi bees li fi bees dama la la droit à l'environnement. Mhm. te ni ñu ko tëggee c'est un. donc tëggin beneen tëggin la mi ngi fi woon accès aux ressources naturelles. ni ñu ko tëggee beneen tëggin la. accès aux ressources foncières ni ñu ko tëggee beneen tëggin la. Euh, maintenant nag yow. yow mi ne loolu mu ngi fi woon loo ci ayibal. ba ci gis góor jigéen. voilà ak ay affaire yi nga ci wax. d' accord d' accord d' accord léegi euh, mu ñëw ci honorable honorable dégg nga dégg nga li nga xam ni euh, wax nañ ko euh, daf ci am ponk bu am solo muy taxawaay bi nga xam ne le ministre de l' intérieur taxaw na ko ci élection yi ñu bëri dañ ko dingat ndax dafa génn en tant que militant APR naam en tant que ministre de l' intérieur itam wax lu jëm ci résultat yi dégg naa waa PDS ñu ŋàññi ko jàpp nag ni dalatul seen xel dalul woon seen xel sax mais gën naa ñàkk a seen xel ndax comportement boobu euh, jàppaloo nii war nañ ci mën a indi saafara war nañ ko mën a xoolaat euh, ndax rafet lu nga ko ci démocratie un militant d'un parti militant wu parti nekk ministre de l' intérieur waaw mais Pape depuis que le Sénégal est Sénégal defe naa nii ñaari wala ñetti ministre rek ñoo sa mës a nekk new ñu ci parti. d'accord li ma fàttaliku. Mhm. mais pourquoi léegi ñu ne nañ ko changer obligatoirement. Mhm. c'est une question que je pose. parce que mhm. man quelquefois aussi nit ñi dañuy xëy suba rek cibler benn affaire wala cibler benn nit. mais nañ ko daan doxee muy dox ministre de l'intérieur bu fekkoo ne que dañ bu dañu pare élection ñu ne kees yi dafa toj sàcc nañu fii. sàcc nañu fële. mais mënoon na yem rek ci loolu. mais résultat yi mu bañ ci sori. mais résultat naa résultat yoo xam ne sax confirmé wuñu ko. ma naa que résultat yi. te yoo xam dafa favorable woon camp. résultat xoolal résultat provisoire lañ. waaw parce que mënul génne résultat officiel. mais moom warul wax pour résultat provisoire. en tant que ministre de l'intérieur. xam nga. xam nga xam li ñuy wax ne boo xam ne c'est-à-dire bu nekkul cëram vous savez que résultat yi ci ñi koy jëkk am la am la bokk. Mhm. Ah. Eh, loolu nag cër bu la Sénégal jox la loolu. war na ko doy les ministres de l'intérieur. waaw. Doudou euh, vraiment du ma bëgg a man du yow yow yow xam nga yow xam nga ni man yow yow du ñu werante. mais duñu xoolal xam nga du ne ma ne yow du ñu werante. ma ne xam nga les renseignements de la police. non nekk nañu tous les jours xam munoo nekk dans un. non mais Pape boo may foofu. xoolal dama dàgg rek. man man man man am na furu. non non non dama ne. xam nga ministre de l'intérieur. waaw. bu fekkoon ne que dafa am fraude laa wax. waxuma loolu wala ñu ne dañ kees dañ ko toj. waxuma loolu wala ñu ne gars yi dañ sàcc. amu fi donc lenn lañ koy reproché mooy lan mooy résultat yi génn na am na ay renseignements wu résultat yi mu génn def conférence de presse def déclaration. Hmm. loolu nga may laaj. Hmm, tout à fait je pense que loolu la. waaw bien sûr dama ne cadre boobu mu def nii. Hmm. peut-être moom waru ko def. en tant que ministre de l'intérieur Sénat moo ko def comme coow bi ni ñu indi. Mm-hmm. mais moi je considère que moom en tant que ministre de l'intérieur chargé des élections mm-hmm. il est chargé des élections donc moom résultat yi mu jox ay résultat provisoire la en tout cas dégg naa chargé des élections bu APR muy Mbaye Ndiaye mu wax ne li mu def waru ko def ah dëgg loolu man dégg naa ko waa dama ne waaw dama résultat yi mu jox ay mm-hmm. résultat provisoire la d'accord parce que résultat officiel Sénat rek moo ko mun joxe d'accord donc bu génnee joxee résultat provisoire du tribunal moo koy joxe cest à voilà xam nga. d'accord allez-y allez-y na leer baal ma rek. na leer Diop na leer rek. waaw tribunal moom mooy joxe tribunal mooy joxe résultat. kañ définitif. kañ mais balaa résultat yi génn am na fu muy jaar. d'accord fi muy jaar yëpp mais moom bu amee information comme l'ensemble des partis la moo tax ñu def ay les commissions. commission yi ñuy def. c'est pour que kenn ku ci nekk boo gisee loo xam ne jaaduwul. dans le truc nga kaas ko mais fan nga koy kaasee tribunal lay doon. d'accord tribunal départemental wala benn tribunal. voilà mais donc moom li mu def. Mhm. def na ko peut-être. d'accord mais nit ñi ŋàññi nañ ko. waaw ay résultats provisoires pour ñu avancer yu gaaw nag nga baal ma rek ñu tënk question yi rapidement quoi euh, position ministre de euh, naa la nga sër xel ni du cëram. non du cëram loolu ñoom xam nañ ko de toute façon. day remettre en en au goût du jour d'ailleurs projet parce que projet bi seen riposé woon par exemple ñi ngi wax ministre de l'intérieur ak taxawaay bii mu taxawee ci élection yi mhm. te mun na tey xel ndax soo faree ba mu feeñ ba mu feeñ ba fës mhm. nga dem battre campagne def lépp munoo ñu gëmloo ni yow mun nga garder sa partialité loolu moom kenn munu ko fee dindi mais bokk na ci ci proposition yi nga xam ne tegg nañ ko président de la république président de parti te kenn waxatu ko ak yeneen mel noonu mais man ñeent yi ma mën a yi ma bëgg a noté yi nga xam ne mooy couac yi am ci scrutin bi mooy benn. waaw mais est-ce que jar na nga dellu si waat ci monsieur Sonko si vous plaît pour ñu mun avancer si vous plaît. non question bi lan la. taxawaay ministre de l'intérieur loolu évacué naa ko parce que jàpp naa ni loolu lu fës la Sénégal yëpp gis ko. d'accord mais dama ne au-delà de sa scrutin am na. waaw moo tax ma ne suñ koy évaluer ay waxu jël ak yu demee noonu amu fi place am. d'accord su jël ñoom ñoo waroon inquiété wu mais dama bu ci njëkk mooy. ba léegi ci ministre de l'intérieur wala président de la république ñi ngi convoqué scrutin bi en pleine révision de listes électorales am na lu mat 200 000 sénégalais yoo xam ne wote wuñu mënuñoo dem exprimer leur droit civique te yow ne nga constitution ngay sàmm te constitution ne am nañu droit wote mm-hmm. nga exclure leen sur une base injuste te bi ma demee cour suprême bi ñu demee cour suprême ñun argument boobu dama ko génne génne jurisprudence cour suprême ci boppam bi nga xam ne annulé la fay élection parce que c'est vrai que élection euh, consulaire la woon mais dafa ne le fait que du faute de la de la faute de l'administration 2000 personnes mënuñoo wote c'est de nature à modifier les résultats ba annuler mm-hmm. tenu tenu élection boobu mm-hmm. loolu premier couac la boo xam ne dans un pays boo xam ne nañ projet bu am solo mu am ay sénégalais xam ne mënuñoo parce que état bi dafa fayal ñaareel bi bi ma mm-hmm. bëgg a wax toujours ci couac yi mooy xam nga ñun déposé woon nañu benn courrier ministre de l'intérieur xam nga ci projet constitution bu baax bi dañ ne dañuy financement public des parti politiques. loolu lu bees la parce que amoon na financement privé ba pare loi de 81 da ko prévoir woon mais musuñu ko appliquer ndax suñ ko appliqué woon parti yëpp dañuy tëj. ñëpp parce que kenn mënu fee justifier ci ñoom ñooñu fu alal gi di jóge ak fi ñu ko këpp. rawatina nag ay nit yoo xam ne moom peut-être am na entreprise may nit yoo xam ne yoroo entreprise bu ñu xam yoroo kii lu dul salaire nga am ni ñëpp ñetteel bi. mooy yéen la presse Pape Ngagne la presse a été déterminante parti pris bu flagrant matraquage du jour au lendemain mais loolu non non sur le oui nga naan ma sur le non yow xam ne li may wax je monsieur Diop et dernier élément bi man foofu laa foofu laa bëgg a daanelee mooy malgré loolu yëpp nag dafa am loo xam ne day dellu ci population yi d'accord suñu mayoon temps ñu développé que nañ ko développé mais loolu mooy li nga xam ne tey voilà ñuul na ci li xew suñ ci suñ suñ suñ ci boolee nag li jiitu woon yëpp ak comportement bi ñu am ñoom ba ñu egsi fii d'accord man mënuma ne ñoom suñu xoolee seen bopp ci biir ci seen seen biir d'accord fu ñu taxaw ne Victor Voitala ñoom xam nañ am man jàpp naa ni la presse bu fekkee da bëgg wax euh, ci man ci TFM laa xam TFM rédaction moo fi am ak service commercial ndax jàpp nga dara loo mën a jam ci rédaction wu TFM ba jour élection non waxuma non dama ni non loolu lu jëm ci commercial bi ak production bi su ma yoon nekku ci li ma mën a engagé mooy la rédaction ndax am na loo mën a jam ci rédaction ñu ak luy commerce bi ma xam kon c'est bon kon c'est bon je mais comme xamuloo loolu non non dama ni TFM mi ngi doon dawal ay ay ay sport d'accord dama ni yow comme xamoo service commercial ak rédaction mun mën nañu yem foofu ci wax ji léegi euh, honorable président li ma bëgg ñu ñu ñu ñu dikk si mooy li ma wax ci ministre de l'intérieur ndax xam nga ci lu la ci déranger ci loolu waaw xam nga te aussi bu ñu fàttalikoo seen seen air li ci ëpp bi ngeen di daanu ministre de l'intérieur bi nga xam ne moo nekkoon euh, biir PDS muy Ousmane Ngom moom moo yore woon élection yi aussi. déedéet non moo nekkoon ministre de l'intérieur plutôt. ministre de l'intérieur ah, plutôt. boo tax il faut d'accord ministre de l'intérieur plutôt. il faut ñu d'accord ci benn affaire Sénégal dafay dox. Mhm. Macky Sall bi mu ñëwee indi na ay doxalin yu bees. xam nga nit mënul mënul noppi ci yenn doxalin yi Macky Sall indi na ay doxalin yu bees yoo xam ne mu ngi koy proposer nit ñi mais démocratie Sénégal dafa am fu mu ko fekk. dafa am fu ko Ablaye di jógee. dafa am fu mu nekkoon. 1970. 74 la ñu commencé nit yëkkati loxoom. ne man d' accord ba fi ñu nekk. donc ma yëgal ne moo tax référendum nañ ko comparer ak référendum nañu jàpp ne consultation populaire bi ñu am li mu am si valeur relative ak yeneen yu tolloowuñu. Mhm. Macky Sall mënoon na ko am daf ci waxtaanu te wax nga ko au départ. Mhm. parce que duñ ci woon def dara lu yokk ci lii wàññi ci li ñu déggoo ci dara lu ñu déggoo. moo gën lu ñu déggoo est-ce que doon na yomb ndax mandat bi aussi. est-ce que doon na yomb xam nga amul xam nga lan moo jafe. est-ce doon na yomb. ma wax la lan moo jafe. Mhm. ci man ak yow ñu toog waxtaan. Mhm. bu ñu xësee ba toog rek. jubóo mën na am. lu ne mën na ci am. d'accord d'accord nit nag bu ñu dee dañuy waxtaan. d'accord souvent du ñu ñëw ak pistolet. Mhm. ñaar ñuy waxtaan jàppal ne bu ñu génnee mën nañu bañ a juboo mais du ñu xeex ci biir ñoom ñaar donc loolu na leer mhm. bi ci des dama bëgg ñu xam ne man waxuma affaire daanu na bëri na génn nañ koo yenu ba ci kaw dóor ci suuf non waxuma loolu bàkkuwuma mhm. dama gërëm sénégalais yépp ñu wote oui ak ñi wote non bëgg beneen prochain référendaire bu amee ñu fexe bu ñu dellu si si 90 94 mhm. pour cent loolu mooy indi consensus su réew yeneen droit yi nga doon wax yëpp dinaa la wax benn affaire bu gàtt. Euh, papa da nga bëgg daan wàcc ci droit yi. waaw dama mais maa ngi fàttali di gërëm position bi nga xam ne. waaw Théodore Adrien Sarr jël na ko le 22 février à Accra. foofu laa yem mais bi ci des ci li nga bëgg a wax dama a wax ne coow am na tuuti. mais circonscrire lañ ko. pistolet génn na. Touba. Dagana. nit wàññi na ba sàgg jël kefi dóor ko suuf xotti yére yi am na moonte am na ko tane moroomam c'est minuscule par rapport une mais mais jaroo ko woon ci référendum tout à fait donc loolu mhm. il faut que ñu teg ci suñu bët bi ci des mhm. xam nga ci problème mu ministre de l'intérieur d'abord il faut ñu leer c'est le conseil constitutionnel qui est chargé à l'article 51 de faire la déclaration des résultats ministre de l'intérieur mënuma jëkk xam li nekk biscuiterie yi jëkku la xam bureau bi nga nekkoon plateau wante taxawul gis nga bu ñu wax ak nit ñi nañ leen waxal nga xam ne mooy dëgg mhm. ministre de l'intérieur mën na am ay recensement par des voies détournées de son administration mhm. mais amul ci cër mhm. na bàyyi cëru jàmbur alors ci loolu ma fàttali ne dañu am depuis général Niang général Cissé général Niang ak ministre bi mu jóge nu mu tudd le dernier à gérer les élections la ah non non Pathé Seck ministre de l'intérieur mais am na ministre des élections te loolu revendication Macky Sall la woon d'accord Macky Sall toog na ne nañu fi jëlee Ousmane Ngom bu mu yoree élection yi am na wala amul bu leen ko fàtte ngoonte moom la mu ñaanoon di ko xeex na ko nangu ci problème conseil constitutionnel bi laa ko gën a mere man Macky Sall foofu laa ko mere yum président Macky Sall dafa bind yoonu yokkute ñu liir ko mu def ci une proposition très avancée sur le conseil constitutionnel bu ma naw man mu def ko jël ñett jël ñaari jox assemblée mais à partir de séquence boo xam ne bi majorité bi ak opposition bi ñoo koy def wala yow liiroon loolu wala boobu temps faragoo woon ak moom donc loolu mu nekk une position avancée waaw tu vois mu nekk mu nekk une position avancée est-ce que tu comprends mhm. avancée kooku dañ ciy taxaw bi ci des euh, li mu def sur le PSE rien que le délai la planification sur vingt cinq ans tey nga war fi rek nga ne da ngay def deux mille cinq ans. Mhm. defar cinq ans vision la. vision boobu. waaw mais da nga koy partagé ñu ci des. d' accord tant que doo leen partagé ak nit ñi. d' accord di ngeen am bés boo xam ne bii. Mhm. te nag kaay ma xool benn affaire ñëpp du ñu yow. ñëpp du ñu Moustapha Cissé ñëpp du ñu Alla Badar Cissé. voilà alors euh, maître maître Youm euh, partagé mooy waxtaan mooy dialogue muy loo xam ne dañ ko dañ ko gisul euh, ci li nga xam ne moom mooy seen seen air yéen ak euh, yéen euh, ak le président Macky Sall waaye bu mu ñëwee ci taxawaayu ministre de l' intérieur par teg na le ndax gis nga ministre de l' intérieur war wax nag ci élection yi ci ci résultats yi comme ni mu ko defee. bon d' abord man partage ñun dañ koy def. ñoom def nañ fi def document de politique économique et sociale kan lañ ko partagé. Mhm. def nañ fi constitution 2001 kan lañ ko partagé. Mhm. def nañu fi yokk mandat bi jëlee ko 5 ans andi ko 7 ans kan lañ ko partagé. xam nga gis nga digg la cangaay na sangu. Mhm. loolu la Olof Njaay wax dañu am bàyyi yoo xam ne vraiment nuróowul sax am na yoo xam ne l'histoire est récente quand même. xale laa mais fekke naa fi euh, législature yi jàll yëpp. gis naa taxawaay yi donc nañu bàyyi yooyu non non non non non non dama la bëgg a wax ne la dama ne la dama ne la non taxawal rek xam nga ko Sonko dama man kii xam na li ma xalaatoon si émission bi. waaw waaw d'accord monsieur Sonko ma ne kii kii xam na li ma xalaatoon. d'accord am na solo je vous en prie je vous en prie voilà. Sonko amul sens li ngay def non ça n'a pas de sens je suis mm-hmm. désolé amul sens. waaw mënoo ñëw ne rupture ba pare di rappeler les mauvaises pratiques non ce que tu dis n'a rien à voir avec ce qu'on a dit. monsieur Sonko je vous en prie expliqué. je vous en prie c'est pas possible. bon allez-y maître excuse-moi allez-y. Mm-hmm. alors donc euh, loolu ñuy wax. Mm-hmm. pour man dañuy wax rek xam nga bu ñu la xasee fal ci démocratie. ci ministre de l'intérieur ah. démocratie. dialogue politique bi fi mu war a am assemblée nationale la. gisuma ñuy woote ay kuréel wala nga def ay commission jox leen délégué leen ñu def ko mais gisuma ñuy toog suba ngoon guddeeg bëccëg di waxtaan loo yëkkati ne damay woo opposition damay woo ma Samba Ndiaye damay woo ma Demba Ndiaye mhm. te nga am mandat boo xam ne yow peuple bi moo la fal moom nga war a waxal donc yooyu mhm. euh, ñun bu ñu koy def ci assemblée lañ koy def mhm. foofu mooy espace de dialogue politique amul feneen euh, li ci des mooy ministre de l'intérieur bi ngeen wax ku nekk ak sa tolluwaay lan moo ko tere ci loi dafa am benn disposition ne ministre de l' waroo wax ay tendance dafa am ministre de l' intérieur buy wax tendance lay wax la preuve pourquoi un gars qui était du courant du oui ne man d' accord su ma defeet keneen ne man d' accord naa maa gagné nga bëgg ko xañ kenn koo xam ne il acteur principal ci constatation factuelle opération électorale yi parce que c' est que le ministère de l' intérieur fait te naan tant de votants moo amoon bureau de vote ci temps la constaté nañu lii. Mhm. ah am na foo xam ne urne bi dafa nangam. am na ex day wax ci opération électorale yi. de mhm. manière général mais c'est normal que mu ne tendance yi yi ñu constaté ñoom te ministère de l'intérieur acteur la ci yëf yi administration territoriale acteur la ci yëf yi mu wax au nom de l'organisation. Mhm. ne lii ak lii ak lii. te loo terewul dara jëlul cëru kenn. c'est-à-dire commission nationale bi nga xam ne moom mooy def proclamer résultat provisoire la preuve am na différence parce que li ministère de l'intérieur wax. ak li commission nationale bi wax. am na différence xam nga moo lay wan ne kon jëlul cëru kenn. te ministère de l'intérieur ñu mewul toog te tey ne li commission bi wax d'accord ma ci man li ma wax mooy dëgg parce que moom li mu doon wax ay tendance lay wax. donc mënoo bañal ministère de l'intérieur li nga nangul. ma Samba Ndiaye dem ci ñu ne ko perte nga mu ne effectivement perte naa tàccu ne la d'accord naa ne perte Mhm. kenn d'accord naa ne maa gagné te lool am na fi presse bi génne ko nga mhm. nga bañ nag loolu mhm. ministère de l'intérieur def ko donc man pour man loolu ëlëb na sama xel bu dee nag dafa am lu ko tere nañ ne article sàngam daf koy tere ministre de l'intérieur bu boobaa ma ne kon ministre de l'intérieur wàccoowul ak li mu waroon def la ca des mooy li ñu fiy wax ay retrait de carte et cetera ñaata élection moo am ñu ay électeurs inscrits ci fichier ñoo jot seen carte électeur te duñu voté bëri na loolu du tey donc yooyu ñuy wax yëpp pour man ay comme ay quoi pour man loolu jotewul dara ak résultat bi ak déroulement wu élection yi ni mu war a demee. dem nañ élection référendaire wax dëgg yàlla xam nga grandeur mooy lan mooy dem nga si courant ñëpp respecté la sa courant bi nga bokk jox la sa cër. Mhm. jox la sa dayo encadré la ci sa li nga xam ne moom nga bëgg mu ne. Mhm. pour mu pour pour nga pour nga gagné courant non bi gagné. keneen ki ñu jox la cëram jox la dayoom jox ko engagement ba nga xam ne dem na ci élection yi yëf yi yëf yi demee noonu. mais man pour man xam nga grandeur moy lan. élection yi de gisuma kenn koo xam tere nañ ko dem voté ci gisuma benn bureau boo xam ne nii jalgati nañ fa. gisuma gisuma gisuma kon élection yi jàpp naa ne jaar na yoon. ok jàpp naa ne aussi comme ñun waxoon nañ lii ci yëf yi. Mhm. ah gisuñu ko askan bi finalement déterminé wu na. Mhm. dans tel sens. dañuy d'accord ci li askan bi déterminé wu. d'accord may jeexalee fenn. Mhm. jox la ay exemple 23 avril 1972 référendum en France pour adopter traité d'élargissement de la communauté économique européenne. xam nga loolu lu am solo la. cim réew. taux d'abstention. 39 virgule 76 pour cent terewul traité bi dañ ko jaar adopté ko. Mhm. référendum du 6 avril 88. en France ba tey bu mu paree rek. référendum du 6 novembre 88 en France. Mhm. taux d' bu ñu bu ñu toppee exemple virgule 11 pour cent xam nga lan la xam nga ñi dañ leen di bàyyi ñu wax. non non non non bàyyi non non non non non 63 virgule 11 pour cent ma joxaat la beneen en France. 2000 mhm. 24 septembre. référendum sur le mandat quinquennat. waaw abstention. 69 mhm. virgule 81 pour cent. d' accord mais terewul absent. d' accord d' accord terewul quinquennat moo fi ne ba léegi. Ah, donc loolu mooy démocratie. am nga raison ah, ah, mais ci ci quelques parce que. mais honorable moom am nga raison. li nga wax yëpp en France dëgg la. mais bi ngay wax 69 pour en France ñun ñu ngi ci 30 pour cent te ñoo ko gënoon woon te jàppal li gën fii. d' accord ba ngay def loolu. ba ngay am sa ay ay euh, ci multipartisme nga nekk jël baax ngay jël. d' léegi léegi honorable non léegi est ce que parce que wax ne abstention. ma ne mënoo ko reproché. d' accord 35 pour cent courant parce que xam nga affaire bi courant la yuy dem <laughs> courant bi dem courant du oui et courant du non ngay reproché

léegi maître dama bëgg dama booy wax taux d'abstention bi c'est à quelle fin. maître je vous en prie alors temps bi dafa dafa jeex régime bi wax nañ euh, ma na bi jeex na euh, mais dama amoon ay questions yoo xam ne suñu ko mënoon aborder ensemble parce que dama dégg président Wade génn ci Walfadjri loolu sax dafay tax ma taxaw ci Walfadjri ak li nga xam ne xewoon na ci événement ci jouru vote bi euh, mu nekk lu ñu bëri ñaawlu ndax dañu gis comportement au directeur général u ARTP mu ànd fa ay nit ñii ne dafa dem pour tëj ko ñii ne tëju ko lu mën a xew honorable nan nga gisee acte boobu nga xam ni posé nañ ko ci jour vote bi foofu ci ci groupe Walfadjri non c'est-à-dire mooy li may wax rek tout temps am na ay actes yoo xam ne nit dina ko posé te du xam sax conséquences yi. ah d'accord d'accord. man pour man loolu la. d'accord peut-être moo dafa doon dem. pour defi ko dara moo tax ma ne politicien dafa dangereux. Mm-hmm. parce que lañ koy interpréter wala ni ko nit ñi di retourner après. d'accord boo seetloo ci interprétation la moo tax ñu ñëw. d' accord léegi euh, Sonko ci acte bi am euh, ci jour wax rek c' est à dire si c' un acte isolé. Mhm. war nañ cee jël ay conséquences si c' est un acte commandité c' est pire encore. non commandité comme xamuñu lu ci ne nag. c' est bon dans tous les cas <laughs> président. xam nga loolu ma boole ci aussi benn question parce que dama dégg président Wade mu ne président Macky Sall ñetti nationalité la am. non waxul loolu. Mhm. waxul loolu. da nga ko dégluwaat ba pare après ñu soog ci discuter. d'accord loolu donc ñu wax ci Walfadjri ak activité euh, parce que di journal bi wax ak ki nga déglu ak li ñuy bind dama koy def différence toujours. d'accord acte bi moo li am moo am moom la jëm si wax. Mhm. gis nga dafa am bés yoo xam ne yi. Mhm. boo nekkee ci état. Mhm. te nekk état. da ngay jëf jëfu état pour nga dimbali ki chef état bi. d' accord ki chef état bi. d' accord parti politique yor woote référendum. d' accord mais fe bi bu fekkee ne moom moo ko def. Mhm. def na erreur. voilà maître ragal naa ne ci acte bi euh, directeur man pour man acte bi dafa am lu ko jiitu mooy nga yor sa télévision ba ñëpp xam ne télévision bi xas ak ŋàññ ak saaga ak tuumaal ci lu teguwul fenn lay def régime. non yow yaa ko gisee deuxièmement jouru référendum mais jouru référendum ñëpp gis nañ ko. jouru référendum ngay génne. ay tendance midi ne non bi mooy gagné bulletin wu non baa ngi nii nangam nangam loolu lañ def. ñoom non non non yow yaa nga ne comparaison. monsieur Sonko je vous yow yow bi man acte man pour man. waaw da ngay xaar ba nga gis le directeur général de l'ARTP bi posé acte bi xam nga yow gisoo acte bi man gisuma ko keneen gis ko. si si man gis naa ko télévision yi. non c'est-à-dire non attends li nga gis xam nga li nga gis mooy. dañu bëgg a ñëw tëj sa cas c'est dangereux ah. non non bu la neexee nga considéré bu la neexee nga suma télévision mhm. loolu la loolu nga gis waaw directeur bi ne bu ko bëggoon a tëj du dem foofu da koy tëjee feneen jeex na kon loolu du tëj sabotage lay doon loolu laa la wax moom loolu laa la wax moo tax ma ne la ci ci ci feneen naan da nga ko fay moo la kon tëj amu fa woon du dëgg d'accord parce que gisoo carte buy tëj. Mhm. directeur bi wax na la lu leer ne la man. bu ma doon d'accord mais loolu nag doo ko gisee nga laaj ko. voilà merci <laughs> beaucoup alors euh, honorable député ma bàyyi la nga non je vous en prie honorable ma bàyyi tàggoo ak mbokku téléspectateurs yi malheureusement waxtu bi. waxtu bi jot na waaw maa ngi remercier l'ensemble des téléspectateurs. Mhm. di remercier ñi demoon ci vote bi yëpp ci jàmm. Mhm. ñibbisi di wax ne aussi ne que vraiment bu ñu bëggee nit yi respecté ñu respecté politicien. il faut que politicien di jàng wax dëgg. c'est la chose loo xam ni il faut que nit ñi di bàyyi sos yi ak yàq yi pour rien du tout. Mhm. que les gens soient constructifs def naa ni loolu vraiment mooy li nga xam ne moom la ñu war a jéem. Mhm. jàng au niveau du Sénégal. d'accord maître. bon man li ma gis daal mooy à part remercier ñi nga xam bokkoon ak ñoom plateau bi mooy mhm. féliciter peuple Sénégal bi. ci maturité bi ñu am ak taxawaay bi. Euh, wax na nag politique dafa am temps pour ay wax lii def naa dafa war a nekk suñu ginnaaw. lépp loo xam ne dafa aju woon ci affaire texte bi révision constitutionnelle ak yooyu. Mhm. pour man dafa war a nekk suñu ginnaaw li ñu war a dëgmal mooy loi yi nga xam ne moo war a sësulaay ci constitution bi naka lañ koy defee fan la ñuy jëm suñu développement économique parce que temps wu politique dafa am mais mhm. temps wu aussi débat économique ak dem si kanam ak perte temps yi ñu wàññi ko dafa am te loolu nag yaakaar naa ne. ñun ñi nga xam ne ñun ñun ñooy élite politique te ñun ñooy les futurs dirigeants ñun ci ñun lañ war a commencé mhm. fóot suñu yëf yi xam ne nag vraiment Sénégal sonn nañ ci affaire bi dañu bëgg nag di dem si kanam d'accord merci monsieur Sonko waaw ah, man di remercier tout le peuple sénégalais leen féliciter aussi mhm. ñi voté ak ñi voté wul yëpp nga sa raison euh, di yokk félicitation ñi voté non mhm. jiital ci waa Touba ak euh, sama mbokk waa Sédhiou ak ñoom seen di wax tamit ni l'appel que je lance aux Sénégalais maintenant que texte bi jàll na nañu xam ni li baax ci tex bi parce que sànq ni nee naa lépp bonu ci li ci baax du am njëriñ ci réew mi du am njëriñ ci réew mi li may wax je le lu dul keroog juin 2017 fexe nañu ba opposition am majorité parlementaire ma ciy jël mas. teel nga campagne ji. déet waaw mais ñoom ci campagne. non non yow teel nga campagne mais mais mais loolu daal mooy li ma bëgg a lancer. parce que. Mhm. Euh, benn point bi ci am solo rek mooy. Mhm. contrôle parlementaire bi nga xam ne yaatal nañ ko. Mhm. duñ ko mus a exercer tant que. d' accord opposition majorité. non saa waay noonu la ñu bàyyi ba campagne boobu je vous en prie. loolu daal laa ci góor daaneel man. waaw président damay campagne ah, d' accord merci de man maa ngi maa ngi lay remercier di remercier ñi ma dajaloon fii ci ñu waxtaan. Euh, waxtaan bi am na njariñ ci génn doon na gën a bari bu ñu doon dégloonte te ku nekk di wax li nga xam ne mooy sama wax spectateurs yi déglu nañu xam nañu wax yu juyaloo mhm. yi nuroo ak yi ñuy weddi ak yi ñuy teg ñu ngi koy dund. Euh, loolu mooy faram-fàcce loolu mooy faram-fàcce donc maa ngi ci gërëm ci effet bi ci des nag mooy di wax ne sénégalais yi xam ne ñoom dañu demul voté ji woon nañu jàpp ne seen citoyenneté mhm. bien que kenn forcé wu leen dañ leen war a ñaax pour élection bu am ñëw voté surtout élection boo xam ne du élection tànn élection charge su réew mi la. parce que loolu moo mas xew ci réew mi 58 63. 70. 2001. d'accord fu ñu daan am juróom benn fukk ak juróom. fanweer ak juróom lañ ci am. d'accord loolu laay woo sénégal yi parce que loolu mooy tax. président bi fi nekk. ñu doon ko fooral. di ko dooleel bu fekk ne ñoom ñu àndoon nañ ci loolu. jërëjëf euh, kon mbokk yi mu nekkoon seen spécial débat faram fàcce ñu leen di gërëm bu baax euh, di gërëm honorable député Demba Diop ñu gën ko xam ci Diop si moom nag suma doyen la vraiment jafewuloon ci moom yi ci ñun itam ñu recevoir ko loolu am nañ ci mbégte Oumar Youm moom suma mag la yaakaar naa ni ñuy seetaan faram fàcce xam nañ ko bu baax euh, ci taxawaay bi nga xam ne moom lay taxaw saa su ne bu fekkee soxla nañ ko ak contrainte bu mu mën a doon dina ko jéggi pour ñëw wax ak ñun jàppal ni daal loolu xam nañ ko ñu ngi la ciy remercier bu baax baax Sonko moom euh, vraiment man am naa ci moom estime bu baax c'est vrai que ñi ngi doog am jataay ci faram-fàcce euh, mais euh, xalaatam rafetlu naa ko bu baax te xam naa ni bii du doon bu njëkkam ci faram-fàcce dinañ am yeneen jotaay incha allah di gërëm suma papa Doudou Wade maa ngi lay gërëm bu baax moom itam ku ko gis xam ni peut-être kattanam mayu ko ko bu baax a baax waaye terewul soox na ñëw ndax li ma ci wax ak moom loolu itam maa ngi ko ciy gërëm bu baax kon mbokk yi ñu leen di la régie fàttewuñu Pierre da Silva Tunkara vieux Diouf ak Babacar Fall di leen jox daje incha allah àllarba bële di ñëw bu ci àllande jërë ngeen jëf. ndax bii nga xam ne moom lañ may fole mandat juróom-ñaari at la. damaa ko yemale ci juróomi at. ndax li ñu bëgg mooy démocratie sax bi.